boobu di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ni ñu ko baaxoo defee dellusiwaat nañ ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne waa daayira muxaddamatul xidma ñoo koy taxawee fii ci jumaa ju mag ji di ko def koor gi yépp ci waxtu wi ñu tànn ci ay tomb yu am solo nag tey jii nag ñu tàmm benn tomb boo xam ne moom it bokk na ci tomb yi nga xam ne tomb yu yitteel jamono la tomb bi nag mi ngi wax ci alshabaab wa dawruhum fi l islaax maanaam ndaw ñi ak taxawaay bi ñu mën a am ci yéwénal seenu xeet ki ñu war a defal waxtaan wi nag di sëriñ Fallou Bousso Hassan di ñu miin lool ci taxawee jataay yu mel nii di ñu miin lool itam ci eh, barab bii doy na sëkk ci xamle ko rek eh, ne moom mooy eh, jiite daaray Lazhar ji nga xam ne moo nekk fële ca gaaraas daaru te ñu duppee ko Serigne Mbacke Bousso moom mooy directeur ba waxtaan wi ñu war a defal nag doon tomb boo xam ne ni ma ko waxee léegi tomb bu am solo la tomb bu yitteel la itam tomb bu nit ñi war a bàyyi xel la itam ndax ku ne xam na ne eh, ndaw dafa doon koo xam ne ku am solo la démb ak tey jii kon yéen ñi nga xam ne yéenay déglu waxtaan wi te di ñu seetaan fu ñu mën a nekk eh, wala fu ngeen mën a nekk eh, ñu ngi leen di bàyyiloo xel tomb bii nga xam ne. moom la Serigne Fallou Bousso war a waxtaane kon xam naa dañuy bañ a guddal rek ñu jox ko mu dugg ci biir waxtaan wi kon Serigne bi bismillah aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi nuyu mbooloo mi di sant si sëriñ Assane ci ni nga lay taaye waxtaan wi te tomb waxtaan tey jëm ci ndaw ñi ak seen taxawaay ci yéwénal dundinu xeet bi euh, bokk na ci baat yi ñuy jëfandikoo muy baatu épistémologie baat la boo xam dafa bokk ci li muy tekki mooy ni ñuy gisee àdduna bi ni ñuy gisee dund gi ni ñuy gisee maanaam jokkaloo gi am ci suñu biir melokaan bi ñu koy jox sunum xel tëggee ko noonu déggee ko noonu ne noonu la war a tëddee dafa bokk ci baat yi yi muy tekki épistémologie muy gisiin ak melokaan woo xam ne ni nag léeg-léeg dafay soppi ko bu jamono ñëwee day soppi ko léeg-léeg nit ñi ni ñuy gisee dund dund mooy lan àdduna bi wan nekkee lañu fa war a nekk relation yi ñu war a seq nu mu war a tëdd yooyu dafay soppiku léeg-léeg léeg-léeg nag day soppiku soppi goo am solo lool waaye nag léeg-léeg mu soppiku soppi goo xam day mel ne dafa soppiku ca cosaan la mu ñëw soppiku goo xam ne nii soppiku gu wér a wér lay doon nga xam ne ci reen yi lay jóge nga xam ne la ko jiitu woon ak la ci topp dañuy wuute lool boobaa nag dañ naan kon ak dagg-dagg dafa am li ñuy tuddee xatiyan épistémologie te mooy rupture épistémologique maanaam dagg-dagg am na ci gis sunu nit ñi ba nga xam ne la jiitu woon ak li ci topp dañuy wuute lool muy phénomène wala boog melokaan woo xam ne ni nag xëy na am nañu ko xamut ni muy amee am ñu ko xam ba noppi nag duñ ko nangoo xam di ko réerantal ndax da gis ni ñoom seen seen njariñ soppiku nekkul ci seen njariñ wala boog seen njariñ nekkul ci mbir yi di soppiku ni mu tëddee muy soppiku te ku nekk xam ne doomu aadama nag yàlla daf ñoo bindee lépp loo xam ne nii bëggoo mu am saa yu amee bokk na ca na doxale mooy nga mel ne ku yëgut ne lii dafa am wala nga réerantal ko wala nga sofental ko moo tax am na ñoo xam ne gis nañ ne yëf yi ni mu tëddee mu soppiku seen njariñ newu ci moo tax léeg-léegi duñ nangu ne soppiku googu dafa am waaye loolu kuy jàngat dundinu askan wi di jàngat àddina bi ni da nga gis ne soppax yu baree bari da ciy am léeg-léegi te ci joxee misaal dañ xam ne soppiku gu wér a wér am na ci sunu dundin misaal mi ci mën a njëkk a joxe mooy ci bu njëkk niñ déggee woon dundu doomu aadama bakkanu doomu aadama maanaam dundu doomu aadama noyyi gi muy noyyi dundu googu dundu bu njëkk dañoo jàppoon ne lu kenn wërta laal la dañ daan wax naan alal jërul jaay sa bakkan boo delloo ci njàngaleem diine sax da gis ne ñu ne la bu ñuy rimal juróomi juróomi ponk yu mag yooyu dañ naan la bakkan teg ci alal nga xam ne kon alal manis na koo joxe ci bakkan ngir ngir maanaam ñongal sa bakkan waaye bëgguñ kiy joxe bakkanam ci alal wala boog ci maanaam settee yu ndaw ndawaan yu tuuti moo ci am bu njëkk noonu lañ déggoon mbir yi ne kon dundu doomu aadama lu ñu sacré la maanaam kenn waru koo laal kenn waru koo faat te tegoo ko ci lu leer nañ loolu dañ ko gëmoon bu njëkk moo taxoon daawuñ nangoo joxe bakkan ngir ci wutum alal kese kese bañ demoon ba gis ne li ñu tuddee xaru xaru moo xam diine la moo xam ñiy tënku ci cosaan ak aadala la ci kenn koo xam ne rafet lu nga xaru maanaam xaru képp ko def diine dana ko bañ waaye suñuy cëslaay ak suñuy aada ak suñuy cosaan sax nanguwul xaru kon xaru benn école rek lañ gis ci waa ñii xalaatkat yi ñoo xam ne nii danañ koy layal te loola leneen la waaye kon bu njëkk xaru moo taxoon nit ñi diine nanguwu koon xel mu rafet mos koo nangu ndax dañoo gëmoon ne bu dundu doomu aadama kenn waru koo sànq ci lu demee noonu sopp gu ci am léegi mooy da ngay gis ne nit ñi léegi am amu àddina am amu alal moom lañ jiital ci seen bakkan loolu yaakaar naa ne gis nañ ko baax a baax danga gis ñu bare ba ñoo xam ne nii ngir am alal jar na leen ñu joxe seen bakkan wala sax ñu wàññi ci asrëf loolu kon ci sopp kuy am ci lañ ko gisee kon nit ñi leen ëppal solo léegi mooy alal ji naa ko am donte sax nag duma ko jariñoo wala wala wala sax daal sama bakkan mën na caa des waaye fi fokk naa ko am loolu kon da gis ne soppi ko am na ci dégg ñu amoon ci dundu doomu aadama ak naka lañ ko war a jàppee dund nag bu ñu ko waxee foofu mooy noyyi maanaam bakkan bi bu njëkkoon ku nekk xam na ne doxalin wu tegu ci njaam dañ koo nangu woon bu baax a baax bu njëkk di am ab sang akub jaam nangu ñi ñu daan tudde ay jaam tam dañ daan nangu ne ñoom ay jaam piir lañ nga xam dañu nangu ne maanaam njaboot sàngam ñoo ñu yilif wala ñu moom nga xam nañu ko daan nangu di ko dund am sax ñuy góor di gën a rawante ci nu may fexe ba sama sang ma gën koo mën a fajal ay soxlaam ak i bëgg-bëggam na mu ko bëggee loolu dañ ci daan rawante nga xam jaam yi seen bopp dañ ci daan rawante kon lu ñu nangu la woon ñi ko ñi ko teg seen kaw nangu ko askan wi koy dund tam nangu ko bu njëkk ay marché moo amoon ay ja daral dara daralug nit dafa amoon ni daralug xër xar ak bëy ak gëléem yooyu ni ñu amee ñu fay jaayi gëléem ak xar ak yu di ko jënd loolu la daralug nit amee woon ñu fay jaay ay jaam di fa jënd ay jaam di ko fa jaay nit ñëpp di ci gis nit ñi nangu ko di ko dund yaakaar naa jamono ji ñu toll nii kenn kuy nangu ne man diw moo moom ku dul yàlla yaakaar naa ne ku ànd ak sam xel ku koy nangoo fi ne amut te même sax boo ko nangoon yow askan wi ci boppam moo ko nangootul léegi dafa am ay nit ñu bare ba ñoo xam ne jóg taxaw ci ne kenn dootu fi dëkk kenn ab jaam jaam bu amee yàlla rek moo koy am waaye nit di jaam jaamuloo moroom jomom kenn nangootu ko kon loolu gis nañu sopp gu mag a mag la léegi amul kenn kuy nangoo taxaw ne diw mooma moom xanaa kay boo nangoo ku la moom yàlla lay doon kon loolu sopp gu wér wér la goo xam am na ci nu biir askan wi bu ñu jëlee lu mel ne njiit njiitum réew wala njiit bu njëkkoon dañ ko daan xool ne moom mooy takk ndeerob yàlla ci kaw suuf ki ñaan wax njiit wala ñu koy tudde buur wala ñu koy tudde sultaan wala yu mel noonu dañoo gëmoon ne moom mooy takk ndeerob yàlla ci kaw suuf kon nag léppam dañ koy sellal léppam lu ñuy sellal kenn du tudd aw turam te dàkkantaloo ak dàkkantal gudd kenn du laal ay yëfam àggoon na sax buy dox takk ndeer bi kenn ñi mu jël sa tànk teg ko ci takk ndeeram ndax moom takk ndeer bi jëmmi buur la te buur dañ koy sellal comme ni ñuy sellale yàlla loolu moo amoon bu njëkk ñenn ñi di ko wutal ay sant ñenn ñi naa ko asxaas dañ demoon ba di ko tuddee yàlla léeg am na ci buur yu njëkk ñoo xam ne nii àggoon nañ ci di leen wax yàlla même ci biir lislaam am na fi diggante boo xam ne nii ñenn ñi seeni buur dañu daan tudde yàlla am na koo xam daan kenn ci bu tax jàkkaarloog kenn ci buri naa ko atteel nu la neex yow yaay alwaahidul qahar noonu la ko doon dàkkanteel ne ko yaay yàlla daanaka te boobu ci biir lislaam la wala boog ci lislaam la ñoon tudd am bañ demee ban mënatuñ ko ñu leen tudde saaxibul jalaal ñu wax sa majesté maanaam jalaal mooy borom tedd nga jalaal ci baat yi ñu jagleel suñu borom subhanahu wa ci la bokk ñu leen koy dàkkantele ñu dem ba ba gën koo woyofal di leen wooye baayu xeet wi leen wax li ñuy wax père de la nation maanaam yéenay bàyyi xel loolu lépp ay dàkkantal la woon yoo xam ne nii cër bu ñu joxoon buur cër bu ñu joxoon njiit moo taxoon ñu leen koy tudde ba mu àgg foofu. ku nekk xam ne ne gisin woowu dafa soppi soppi koo xam ne nii soppi gu wér a wér la li ñuy wax changement radical moo ci am léegi bu ñuy xool njiit dañ koy jàppee koo xam ne nii sunub serviteur la maanaam sunub sunub liggéeyaakoon la. ñun ñoo ko fa teg ngir mu liggéeyal ñu gisin woowu léegi moom lañu am ci moom lañu am ci njiit ki ñuy jiite ci wàllu àdduna kon dañuy gëm na ñun kii ñu jiite ci wàllu àdduna fi mu nekk ñoo ko fa teg la muy dundee itam sunu ñaq la ñoo koy fay te dañu am moom contrat boo xam ne nii moom dañ nekkoon ko nañ la fal nga defal nu lii ak lii ak lii ak kon moom nekkatul buur ci suñu kaw nekkatul doomu yàlla ci sunu kaw nekkatul keroog yàlla ci kaw suuf waaye nag mbindaa ma da wala boog liggéeyaakanu askan wi moom lañ koy jàppe léegi noonu lañ tuddee léegi liñ ko daan tuddee ko yaay bàyyu xeet bi ku nekk xam ne autorité parentale loolu liy séq ak nit doom li muy relation bi muy seq ak baayam lan nanguwatuñu léegi buur wala boog njiitum réew di ko séq ak ak njaboot njaboot gi mu siif maanaam relation bi ñu ak buur kon léegi mooy relation boo xam ne ni contrat social lañ koy tuddee contrat social nag mooy da ngay bàyyi lëf ci say àq ak say yelleef ma def ko keneen def ko ñu boole ko jox ko kenn ne ko dee ñu organiser dee ñu nosal kooku amul benn sañ-sañ ci def boppam buur suñu kaw wala yàlla suñu kaw wala sax muy def lu mel noonu kenn amul sañ-sañ boobu ndax ñun dañoo jàpp ne moom sax daf noo war a liggéeyal te bu ñu demee ba gis na nag nekkatu ci suñuy soxla yëngatoo suñuy soxla dañu am sañ-sañ jëlee ko fa teg fa keneen loolu kon dafa sopp ko bu baax a baax yooyu ak yu mel day tegtal ne kon li ñuy wax xatiya épistémologie loolu mooy rupture épistémologique mooy dagg-dagg bi am ci gis askan ak ni ñuy dunde loolu lu wér la xale yi ñu war a waxtaane tey bu njëkk ku ne xam ne ndaw buñ ko masaan di xool dañ koy xool xool yi ni koo xam ne nii mooy koo xam ne nii ñoragut mooy ku ñor mooy koo xam du ñor mukk ñu baree bari fi nekk li fekk say mag ak say baay ñu ngi dund dañ naan xale rek la maanaam xale kon mooy ku ñoragut noonu lañ daan xoolee xale bu njëkk wala boog waxambaane gëmoon ne moom amul baat amul décision amul kàddu léppam lu ñuy def ci moom kilifaam rek la ñuy dem waxtaan ak moom moom duñ ko laaj xalaat duñ ko déglu ci moom muy jël ndigal waaye kilifaam la ñuy waxtaanal kilifaam mooy jël ndigal ci place am bu waree wax kilifaam mooy wax waaye moom noppi ak jëfe rek lay féetewoo loolu moo amoon bu njëkk gisin woowu la ñu bu njëkk ndax dañoo gisoon ne xale mooy koo xam ne nii ñorut àggagut ci ñor léegi xale yi dañuy bu ñuy xool mag ñi dañ leen di xool bëtub nit ñoo xam ne nii dañoo tardé maanaam dañuy gëm ne mag ñi dañoo doxul ba noppi ñoom bëgg leen a gàllankoor seen dox gisin woowu la xale yi am ci mag ñi jamono ji ñu toll nii ndaw ñi dañuy gën a jëm ci màcc jëm ci jëlal mbir seen bopp téyel ko seen bopp loolu ku nekk xam na ko maanaam xale yi léegi dañoo gën a jëm ci ku nekk sa décision bopp nga yoral ko nga ciy soppandikoo sa bopp wala boog balaa caa kenn def dana waxtaan ak moo tax léegi xale yi bu ñuy jàng njàng mi da nga ciy waxtaan ak ñoom lii laa bëgg a jàng bëgguma jàng lii ñu waxtaan ci boo amoon sa doom sa kër bëgg koo maye moo xam soxna la wala ku góor nga bëgg koo takkal il faut que da ngay waxtaan ak moom bëgg nga kii bëgguma ko ak yu mel noonu waxtaan ba juba ci waaye boo nee may kilifa ba def ko tam da nga ca gis ñu war doxee ci doxin woo xam ne nii du la neex kon xale yi léegi dañoo gën a jublu ci ne ñoom kat léegi seen mbir nan koy yoral seen bopp kon kilifteef danoo gis day gën di wàññiku ci àdduna loolu mooy li am baax na wala baaxul wala yow leneen waaye daal dañu gis ne kilifteef goo xam ne ni da ngay jëfandiku ci xale bi nu mu la neexee te doo ko laaj xalaat doo ko déglu du wax du te du te du tontu loolu moom day gën di manqué jamono ji ñu toll nii te ku nekk gis na ne day gën di manqué. kon nag soppiku yooyu nag nga xam ne foo xool gis ko loolu ay ay misaal rek la ci nga xam ne foo xool gis ne mi ngi soppiku la doxoon bu njëkk ak liy dox léegi wuute lool lool loolu lañ ñu tuddee alxatiyatul maanaam mooy rupture épistémologique. ndax nag dafa gën a baax wala dafa gën a safaanu dafa gën a juunu ndax daa baax wala daa baaxul loolu ab àtte la àtte boobu nag xëy na du tomb waxtaan wi waaye daal moom loolu ay loo xam ne nii ñu ngi koy gis mu am sunu kanam la muy ay mbir yoo xam ne nii itam nag képp koo xam ne nii yaa ngi koy xool te xoolee woo ko noonu boo wutut comme ci mbir mi day gën di jafe sa kanam buñ ko bëggoon leeral dëgg-dëgg dañuy wax ne dañun dañoo jàpp ne àdduna bi ci aw mat la nekk mat ci ñi ko xamul mooy soxna su toll ci am gone àdduna bi dafa toll ci mel ne kuy bëgg am gone léegi mat wi nag moo yàgg waaye mat nag bu yàggee am na ñoo xam ne ni ñoom fi ñu toog rek la ñuy toog mooy ñi ci di ay jaami dun nga xam dañoo way fi ñu toog jàpp ne dara du soppiku te dara war a soppiku te la doon am rek moo war a am ñu di mën na am duñ jéem a jël ay matukaay ci ne nañ xool ba xam doom ji jéem koo échographie ci misaal maanaam jëfandikoo jumtukaay yu xarala yoo xam ne nii dañuy xool doom ji lu gàllankoor ak yu mel noonu gëstu yooyu day mel nañ ñooñu bu dee nit koo xam ne nii dafa woy fi mu toog te gëmul ne yëf yaa ngi ko moom noonu lay gisee àddina bi waaye nag ñi nga xam ne ñoom seen xel mi ngi nàcc te léegi yàlla jox leen ay jumtukaay ñu mën a jëfandikoo li ñu wax échographie loolu soxna bu tolloog diggante boo jëfandikoo machine bi ñu wax échographie da nga mën a xam ba xam doom ji góor lay doon wala jigéen day ñuul day xees maanaam am na am na ay maanaam rëq-rëq ci bindi wala amul rëq-rëq ci bind bi yooyu yëpp danga koy mën a xam bu ko defee yëpp boo ko xamee ne yow da nga mën a waajal xale bi balaa judd ba matukaay yi nga war a jël nga jël loolu ko loolu daqawut ak diine te lu am la léegi ñu koy dindi waaye am na ñoo xam te boo leen waxoon lu mel noonu dañ taxaw ne la loolu koy mënta am maanaam yàlla rek moo xam li ne ci biir biirub soxna si kon nag di jëfandikoo machine boobu léeg-léeg ni muy baaxee ci jigéen ju ci mat noonu lay baaxee itam ci kuy dund ci wàllu askan nga koy jëfandikoo léeg-léeg léeg nga toog def échographie askan wi xool ba xam liy bëgg a ñëw nu lu muy mel ak bu ñëwee naka lañ ca war a tëdde bu nu jëfandikoo loolu nag ñun ci àdduna bi danañ ca gis yu mel ni yi ñuy bëgg a wax danañ gis ne doom jii bëgg a juddu te àdduna di ko matu population lay doon wala boog ab ak njaboot lañuy doon koo xam ne nii dootuñ nangu sukk ak raamal kenn dootuñ sukkal kenn dootuñu raamal kenn dootuñ toroxal seen bopp ci kaw kenn dootuñ nangu tam ku ñëw nekk mustabit mooy dipotisme maanaam li ñuy wax koo xam ne nii sa gis-gis dong nga jàpp ne moo war a jàll keneen warta am xalaat loolu nit ñi nangootuñ ko dootuñ nangu tam ku ñëw di nekk buur ci seen kaw nekk yàlla seen kaw dootuñ nam ku ñëwoon ñu nekk tyran ci seen kaw mooy ku bew koo xam ne nii da ngay yàq di def lu neex te kenn du la wax dara loolu dañu gis nañ ni askan yi dañoo àgg ci nangootuñ ko askan wi ñëw dootu nangu mukk tubaab wala colonialiste buy jóge fële ñëw di jël suñu alal di ko sàcc di yóbbu dem di tabaxum réewam ba mel na war a mel ñun ñuy du ci ak ñu ak tuumaraanke ak no ak coono loolu askan wi judd ëllëg du ko nangu loolu moom defe naa ne ku def mbir yi jàngat te dana gën a leer ci kanam te bu ñu xoolee loolu ni ñu ko mën a échographie li jumtukaay bi ñu jëfandikoo mooy dañoo xool askan yi ci at yu mujj yi nga xool li ñu tuddee arabiwul arab yi mooy printemps arabe wala boog euh, maanaam loolu lib arab loolu lib arab mooy askan naar yi xëy xëy fipp taxaw ci mbedd mi ne li fi amoon dootu fi am ay nit ñoo xam ne nii ak àggoon nañ ci ñoom booy dox ci mbedd mi ñeme woo tudd turu nguur gi turu buur bi kenn ñi mu tudd ci mbedd mi kenn ku ko ñeme amul léegi askan woowe ñoo xëy xëy taxaw jàmmarloog buur boobee ne ko tey fii la mbir mi yem xam nañ fi réew moo xam ne nii nettil nañ fa ne am na koo xam dafa ma dugg sa dugg ci kaar ci biis autobus maanaam kaar ak dugg ci mbooloo wax ba tudd turu buur ba bañ àggee ci arrêt bi njëkk àgg rek mbooloo mépp wàcc kaar bàyyi ko kaar bi moom dong mu des maanaam nga xam ne yooyu foofu lañ toll woon seen digg ak seen buur ci ragal leen ak jox leen cër ba na muñ leen tudd askan yooyu ñoo xëy tey fipp ne yëf yi day jeex te la ko jiitu muy pays yi ñu daan ay lu mel ni Union soviétique ay pays yi nga xam ay communiste lañ woon nga xam ne foofu état moo fa nekkoon buur di bummi lu ko neex lay def kenn amul sañ-sañu contre kenn du opposé wu état maa ngi def lu ko neex ñu not nit ñi ci nu mu leen neexee di nguuru seen kaw na mu leen neexee ñooñu ñoo jiitu naar yi ci fipp tey ci union tas nañ ko maanaam xeet wu nekk dem ak seen bopp di àtte seen bopp di décider seen bopp réew yu meloon na népp xëy nañ tas kon nag loolu teg tal la ci ne kon loolu moom buñ ko jëfandikoo dañu xam ne askan wi àddina bi ñoo jëm ci nangootuñ kuy buur ak a nguuru ci seen kaw loolu day ñëw bu nu xoolee tam doom ji war a jur danañ gis ne ay xale lañuy ñuy doon yoo xam ne nii dootuñ nangu ku féetewoo kàddu gi ñoom duñ wax duñu def duñ dindi loolu dañuy gis ne moom tam ci yoonu jeex ci la nekk mbir mi nag maanaam mu neex ak mu naqari noonu rek lay deme xëy na man naa am ñu wax bu ñu ko déggee dañuy gis ne wen kenn waru ko wax wala ñu mel noonu waaye loolu mooy li am xale yi ñëw ëllëg ku leen yilif kilifteef goo xam ne yaay def di dindi ñoom duñ am kàddu duñ gis duñ wax dañuy doon ay xale yoo xam dañuy bëgg dañoo gis ne dañoo war a diisoo ak ñoom dañoo ci ne ñoom lépp lu ñuy def seen mbir dañ caa war a diisoo ak ñoom dañuy gëm ne seen kàddu dañ ko war a dégg ci biir kër gi di ko dégg ci mbedd mi li ma waxoon léegi kër gi sa doom dootu nangu léegi kat nga xëy rek ne ko diw laa la jox daal koy buub yóbbu loolu ku ko defit gis résultat bi mbedd bi tam dootuñ nangu rek ñu xëy ne la lii ak lii ak waaye dañuy bëgg lu ñu defal lu nekk ñu toog ca waxtaan ca ak ñoom bañ joxe ci seen gis-gis ñu door caa mën a wéy ku képp koo xam nag yaa ngi dox ci àddina bi te ni ñuy waxe mbir yi dégg ko noonu foo toll dangay gis ne yëf yi day gën di compliqué sa kanam day gën di fasu day gën di ñaqare lijjanti sa kanam ndax da ngaa taxaw te àddina bi day dox te bu fekkee da ngaa taxaw àddina bi dox nag da ngay dem ba àddina bi da lay weesu bu ko defee lu baree ba da gis ne ay jafe-jafe yu baree bari la lay jural te moo ne boo xamoon fi bi toll nga doxe doxin woowee da nga gis ne yëf yi dana gën a yomb ci yow nuñ koy lijjante loolu nag moo indi tey li ñuy wax ñu mal estimé maanaam ni ñu natte tolluwaayu xale yi dañ cee juum tolluwaayu xale yi fi ñu toll dañ koo mal estimé mooy dañ koo su taqdir mooy dañ koo niñ ko natte moo baaxul nattin wu baaxul wi ñu natt xale yi nag moo tax mu jural ñu ay xale yoo xam ne nii dañoo mel na ñu gëlëm ñu gëlëm ñoo xam ne ni xamuñ fu ñu jëm buñ ci doon joxe misaal dañuy mel ne dañoo mel ne ñoo xam dañoo ci néeg bu ci guddi wax set gu lëndëm këriis di xool mbaxamu mbaxana mu ñuul kukk te mbaxana ma néew ci biir néeg bi kooku mooy situation bi bi ñu ko doon tënk maanaam ndaw xawle yi dañoo mel ne ñu gëlëm mooy dañoo ne ci néeg lëndëm këriis ci li guddi wax set gu lëndëm këriis di xool mbaxana mu ñuul kukk te mbaxana ma néew ci néeg bi loolu nag def naa boo koy def sa ngëlëmte dana yàgg te nag loolu ñun ñoo ko sabab ndax niñ natte yëf yi dafa yemewul noonu loolu nag moo tax xale yi dañoo mel na ñu dem ba découragé dem ba jaaxle ci système bu fi yàgg te nanguwut a soppi ko te nanguwul dara soppi loolu moo jaaxal nit mooy dañoo gënam jaaxle ci doxalin woo xam ne nii mi ngi fi yàgg fi lool moom ci boppam nanguwut a soppiku te nanguwul kenn ku soppi dara loolu nag bañ demee ba jaaxle ñoom dafa jur lu baree bari seen jaaxle googu nag dañ koy feeñal ci ay melokaan yu baree bari léeg-léeg ñu feeñal ko ci fipp ay xale yu jékki-jékki fipp bis bu set nga dégg ñu ne xale yu barab sàngam fipp nañ taxaw boo jëloon tey ci Amérique nga gis la fa xewoon gannaaw bu ñu fa reyee xale bu góor bu ñuul boobee nga xam ne lu fa daan am la di jàll kenn du ci wax dara rey nañ fi ba tey nit ku ñuul ci Amérique xale bu américain bu ñuul ñu rey ko dara du ci mujj def nañ ko ay yoon yoon yi du jeex waaye biñ ko mujjee def gis nañ la xew Amérique ay ndaw ñëw fipp taal nañ dëkk yu baree bari mbooloo faatu na ca lu baree bari yàqu ca kon tegtal la ci ne fipp am na foofu. la ko jiitu boo xoolee France ci misaal am na xale yu fa jógoon ñu leen doon tuddee borom mbubb yu mboq yi di ñu wax maanaam fipp. doon sol ay bubb yoo xam yu mboq la ñoom it di jóge ci banlieue dëkk bi ci maanaam aneeru dëkk bi di wàcc si biir dëkk bi di yàq di taal di dem ndax dañoo gis ñoom situation yi ñuy dund ci banlieue bi ak situation yi ñuy dund ci biir dëkk bi wuute na lool te loolu nangaatuñ ko loolu moo am Sénégal bu yàggul Sénégal bu yàggul ay ndaw ñoo fippu ne mbir mi fii la yem dootu amati gis nañ la ci xew alga la ci juddoo xëy na dañ ci ñëwaat kon léeg xale yi maanaam ngërëm ak njaaxle googu ak jaaxle googu léeg-léeg ñu feeñal ko ci nga dégg ñu fipp barab sàngam xale yi fipp nañ yàq nañ taal rey nañ def nañ yu noonu te la ko waral mooy ñeneen yilif dañoo nattu fi yëf yi toog nañ natt yëf natt ba moo baaxul xale léeg-léeg bu ñu mënul loolu danañ ko feeñal ci jël seen bakkan risqué ko ci loo xam ne du leer amantir boo xam ne xamuñ fu ñu jëm léeg-léeg nga dégg xale bu ne la man de mbir mi moom danaa ci génn mbaa ma faatu yëf yi daal dama ciy génn mbaa ma faatu ma joxe sama bakkan ñu koy gis ñu koy def xale yi soob seen bopp ci géej gi soob seen bopp ci ay situation yoo xam ne nii seen bakkan ñu bare bari seen bakkan des na ci te moo ne dañoo jàpp ne loola moo gën sax ñoom lañ doon dund loolu la ñu feeñee ko fu mel noonu kon nag gis nga ko doon daal man daal danaa réussir wala ma faatu wala boog danaa génn situation bi ma nekk wala ma faatu waaye moom lii moom fi la yem léeg ñu feeñal ko ci lu mel noonu am ci ñoom ñoo xam dañoo toog ci biir réew mi ci biir réew yañ dëkk di jëfandikoo ngànnaay di agressé nit ñi dal seen kaw nangu seen alal ngir mën a faj seeni soxla loolu itam benn la ci melukaan yi ñàkk gu ñàkk natt situation bu baax moo waral jur lu mel noonu bu xale ne bis bu ñu réussir nag ci maanaam di jël ngànnaay di dal ci kaw nit ñi nangu seeni alal di ci faj seeni soxla bis bu lu pexe moom bis bu jàllee maanaam saali kenn dund ci jàmm te foofu fa lañ jëm am na dëkk yoo xam ne ni léegi daanaka dox ci mbedd mi yor xaalis kenn ñemeetu ko dox ci mbedd mi takk lu rafet sax kenn ñemeetu ko dox ci mbedd mi sol yére yu baax sax kenn ñemeetu ko ñu dal ci sa kaw agressé la mën nañ laa rey mën nañ laa yàqal si kii nangu sa alal dem te loolu ay ndaw ñoo koy def te la ko waral ñun ñi génnuñu ci wala boog mag ñi génnuñu ci. loolu kon benn la ci ñàkk gi ñàkk natt natt bu baax wala boog li ñuy wax su taqdir wala boog li ñuy wax mal estimé ñàkk natt natt bu baax situation bi ndaw ñu tollu tam. moo tax ñu jàpp ne mbir mi problème xaalis dong la ba tax na bu ñu leen joxee ay financement ay projet dig leen ay projet yu ñu leen war a financer wala yu mel noonu mbir mi dana saafaraw loolu itam ku jàpp ne loolu la yaa ngi ci njuumte lu mag a mag a mag ndax mbir mi weesu na foofu bari na xale boo gis mu yor alal wala boog muy liggéey liggéey bu baax di gañe lu am solo xëy xëy ne ko fi kupp dem amantir kon kooku mën a wax ne problème financement moo ko tax dugg ci lim dugg kon ku jàpp ne mbir mi problème xaalis dong la ba tax nga leen dig ay financement danaa financé projet dinaa def lu mel nii tax ne loolu mooy koy réglé yaa ngi ci njuumte mbir mi xay na xaalis ci la bokk waaye gën naa xóot xaalis kese kese kese am nañ ci misaal yu bare bari yoo xam ne dañ koo joxe ci xale yoo xam ne nii situation yu baax lañ nekk xëy na bàyyi ko fi ne ko fi kupp dugal seen bopp loo xam seen bakkan ca la des nettal nañ ñu koo xam ne nii baayam biis la ko jëndaloon auto biis maanaam biis yi ñuy transporté yu mag yi la ko jëndaloon bàyyam néew fi jox ko ko bis bi nekk ci disposition nga xam lu mu néew néew mën naa xëy gañe juróom wala fukki junni mu dawal oto ba ci tefesu géej gi mu gaare kaar bi dugg ci géej gi faatu ci gaal xam xam nañ koo xam ni toolam la bay ba mu ñor mu waroon koo jaay war caa mën a dund am at wala lu néew néew mu bàyyi fa la lépp dugg ci géej gi faatu ci géej gi kon mbir mi ku jàpp ne mbirum xaalis kese kese la yaa ngi nax sa bopp du mbirum xaalis gën naa xóot loolu danaa joxe sax misaal moo xam ne ni misaal mat a jàngat la mooy su xale bu jigéen élève bu jigéen boobu ñu fi amoon fan yi paase ñëpp xam nañ ko koo xam ne nii lépp lu ñuy defal nit ngir nga mën a am àgg fi nga jëm defal nañ la ko tàmbalee ko ci nga am sa BFEM ñu dugal la ci école lycée bi gën a baax Sénégal wala boog lycée bi bokk ci yi gën a baax Sénégal ñu dugal la fa def la internat état bi yor la yor la sa lépp sa dëkkuwaay sa dund sa lépp ñor la ko teg la ci conditions yu baax tànnal la professeur yi gën Sénégal ñëw di la jàngal nga am sa bac ñu jox la bourse d'excellence maanaam bourse boo xam ñëpp duñ ko am bourse boobu maanaam jàmbar yi dong koy am ñu jox la ko yóbbu la ci école yi nga xam ne nii fa ñuy préparé borom xam-xam yu mag yi yëpp ci foofu la ñu di préparé nga fekk fa ay chinois fekk fay japonais fekk fay français fekk fa ay africain na yow xale bi fu mu mujj fan la mujj ñëpp xam nañ kan moo mën a taxoon ne kooku problème financement moo ko tey réussir mbir mi problème xaalis te su fekkoonte ni moom dong la dañ naan loolu cas isolé lañ koy tudd maanaam moom kon amul solo comme kenn ko def garaawul waaye nag dañoo gis ñu baree bari ñu taxoo di ko défendre te ñu koy défendre maanaam zalika mooy ñoom ko bu ñu nekkoon barabam mën nañoo def ni mu loolu mooy li ñu ci tiital bu fekkoonte ne moom dong moo ko def te kenn àndu ci ak moom kon dañ naan loolu garaawul xëy na mel ni moom waaye dañoo gis mbooloo ay mbooloo yu jóg ko défendre kon day maanaam zalika mooy mbooloo yooyee ñoom bu ñu toogoon fi mu toog ñoom mën nañoo doxale na mu doxale loolu nag defe naa ne mooy mentalité wala boog yëg-yëgu xalaatinu ndaw yi fiñ toll mu ma doon lu mat a jàngat loo xam ne nii gis nañ kon koo xam ne jox nañ la matukaay yépp te defoo dara kon mbir mi du mbirum xaalis waaye mbirum état de mentalité la maanaam toll waaye xalaatinu xale yi foofu la foofu la mbir mi toll kon xale li soxlawoo dëgg-dëgg fim mu ne nii mooy ku leen yaa beesalal yaakaar ci seen biir ku dundalaat am yaakaar ci seen biir moom lañ soxla ku leen joxaat yaakaar yaakaar naa ne bu ñu jëloon tey kuy faj kuy faj ku nekk sam paj mi ngi tàmbalee ci ka ngay faj nga jox ko yaakaar docteur bu mën ci doon médecin bu mën doon ci àddina boo ko indiloon malade la muy njëkk def mooy fexe ba maanaam ki wéradi am yaakaar ci ne moom dana saafaraw dana jóg ci tawat ji mu tëdd bu fekkente ne loolu mënu ko rek ak lu mu ko mën di jox ci ay garab nit ki bëgg mu leen a du wér maanaam il faut da am yaakaar ñun dinaa wér bu ko defee bu ñu la joxee garab yi garab yi dimbali la nga mën a wér askan wu mënti doon itam ku leen bëgg saafara bëgg leen a jubanti da nga leen di jox yaakaar ci ne lii mbir mi mën nañ koo defar daañ ko defar bu ko defee ñu am yaakaar waaye boo leen gëmloo ne mbir mi mënta soppi ku mënta baax mbir mi du baax mukk léegi xale lan la ñuy dégg ci mag ñi lan la ñuy dégg mag ñi di leen ko wax da dégg mag mu taxaw ne la Afrique du dem Afrique moo mënta dem loolu la ñuy gëmloo Afrique mënta avancer da ngay dégg ko ne la réew mi du dox réew mi mënta dem yooyu ngay dégg baati mën mënta mënta nangam mënta nangam yooyu tax la ñuy dég dégtal ci bopp ci bopp xale yi léeg sax nga dégg ko naan la tubaab yi de bu ñu toogoon ñaari téeméeri at di nelaw nun africains yi ñuy liggéey lu tax ñu dab leen waa léegi na yow yow maanaam ñàkk yaakaar googu mënoo koy jëmbati ci bopp xale yi ba noppi bëgg ñu dox loolu mënta nekk moo tax stratégie bu ñu mën di teg projet bu ñu mën di teg li fekk fekk fexuñ ba xale yi gëm ne am yaakaar ci ne mën nañoo génn situation bi ñu nekk loola dox te foofu lañ toll kon xale yi dañoo soxla ku dundalaat yaakaar ci seen biir te yaakaar mooy dundal nit nit bu noppee am yaakaar ci àdduna donte mi ngi noyyi ak dem dikk dem dañuy jàpp ne ko faatu kon li fekk yaa ngi am yaakaar moom yaa ngi dund waaye nag bis boo noppee am yaakaar mooy faatu nga dont yaa ngi dox di dem ak dikk yaa ñi faatu ñu denc leen yéen a yem mbir kon nan fexe ba xale yi am yaakaar ci ne yëf yi dana soppi ko ba noppi nag ñuy dox ci lu ko soppi loolu mënta ñàkk xale yi dañoo soxla ku leen jëmbataat seen bopp ñu am confiance ci seen bopp wóolu seen bopp gëm na ñoom am nañuy man-man am nañuy leen yàlla jox loo xam ne bu ko jëfandikoo soxlawu sax ñu dem fenn mën nañoo réussir fii ñu toll loolu dañoo soxla ñu jox leen ko jëmbat confiance ci sa bopp nit nga fexe ba nit ki gëm ne moom yàlla may na ko loo xam ne mu ko mayee ñëpp mën naa génn situation bi te mën na cee génne boppam te dana ci génn loolu dafa manqué ci suñu biir te xale yi di gis mag ñi di ko dund mag ñi seen bopp dañoo woon xale ne ñun amuñu confiance ci suñu bopp dañoo gëm ne ñun mën mënaluñ suñu bopp dara loolu lañ gëm di ko dund buñ ci joxee misaal moo xam ne nii ab xista la boo xam ne nii am njàngale la xëy na mën naa am bañ am waaye day wane rek fi nit ñi tool dañuy wax dafa am ay xale yoo xam ne nii ay étudiants la woon doon jàng wàllum science bis ñu ànd ak seen doyen maanaam ki kii leen yilif ci njàng ma ci fag bi ñu dugg ci avion ne dañuy dem tukki dañuy dem sort wax nañ ne bi ñu duggee ci biir avion bi nag commandant de bord bi maanaam kii dawal avion bi daal ne maa ngi leen di dalal jàmm de ci avion bi nga xam ne nii seen doomi ñoo ko defar bi mu daanee kàddoom rek xale yëpp daal di wàcc ba mu des mag mi ñëw laaj mag mi nag waaye yow dañoo gis xale yëpp wàcc ba mu ne soo mu ne la damaa xam ne su fekkee ñun ñoo ko liggéey avion bi dudul jóg bay daan foofu la mbir mi toll ñàkk gu ñàkk confiance suñu bopp foofu la tool da ngay gis fii koo xam ne dëgg dong bu ko jamee du ko sekkee Sénégal bitim réew la koy sekkee ji waaw loolu nga koy def xale yi di ko gis xale boo xam ne nii moom moroom lañ bokk formé loo ci fac médecine mu di marocain wala mu di tunisien muy muy muy tunisien moom mu dellu réewam di fa liggéey moom mu toog Sénégal di liggéey nekk docteur comme moom su ma feebaree fii damay dem Maroc kooku di ma faj ma bàyyi ko fi moom manque confiance boobu yëg-yëg boobu moom lañ jëmbat ci xale yi loolu fi naa il faut ñu delloo si xale yi ne leen yéen li seeni moroom man man ngeen ko bu dul loolu mbir mi du sotti saafara du am il faut ñu fexaat ba xale yi am confiance ci seeni kilifa wóolu seeni kilifa moo xam nag ñu yëngu ci diine ji moo xam ñu yëngu ci wàllu àdduna bi la xale yi dañoo soxla am kilifa goo xam ne dañuy am pas-pas ci ne seen kilifa gii mi ngi yaar ñoom ci aw yoon loolu nag dafa manqué dafa manqué léegi euh, ci dundin mi damaa moom ñi ñi yilif àdduna ñooñu moom foo waxee ñun la ah loolu nga ci dégg xale yi am amatuñ benn ko kóolute ñi leen yilif ci wàllu adduna bi te mi ngi law ndànk-ndànk nag di ñëw ci wàllu diine ji maanaam yaakaar ji amoon ak kóolute gi ñu ci kilifay diine mi ngi wàññi ko ndànk-ndànk dañ cee gis yu bëree bëri yoo xam xëy daañ ci ñëw ci kanam tuuti biir kon il faut ñu wanaat xale yi fexe ba xale yi gëm ne ñi leen yilif war nañ leen a yilif te mën nañ leen a ñu ngi ànd ak ñoom ci aw yoon loolu bu amut saafara du mën kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ni ah bu ñu ko bàyyiwut xel mbir mi du sot xale yi lañ lay soxla woo dëgg di mooy yorin bu bees gouvernance bu bees doxalin bu bees ni ñuy saytoo yëf yi ñoo am ci soxalin bu bees woo xam ne nii dafay sukkandiku ci maandute équité maandute ci seddale alal ji ñëpp bokk ñëpp bokk ku nekk mañ cee gis sa bopp xale yi loolu lay soxla alal ji ñu moom ñëpp a ko bokk dañ koo dénk ay nit nañ ko séddale séddale bu équité équité bu ñu waxee waxuñ waxuñ ñu tolloo ci cër waaye ku nekk lañ ci war a am na ko ci am loolu mooy équité xale yi dañoo soxla gouvernance bu bees boo xam ne nii doxalin bu bees boo xam ne nii day ànd ak transparence bu mat sëkk ñuy wax safaafiya maanaam doxalin bu leer nañ woo xam ne lenn ci ay lënt lënt du fi nekk duñ dégg ñu ne menn mag maanaam jël na alal réew mi duñ dégg ñu ne menn mag war na morom ja wala yu mel noonu loolu mooy transparence xale yi dañoo soxla yu mel noonu yii ma tudd nag li fekk amul buñ jàpp mukk ne xale yi taxawaay bi ñu war a taxaw ci biir askan wi danañ ko taxaw te danañ ci ñëwaat ci a ganam jarul nag ñuy yedd kenn bu kenn yedd kenn nag bu kenn ne diw la wala diw la déet na ku nekk jàppal ne yow da ci am responsabilité ñun ñëpp ci am responsabilité ku nekk am nga ci loo ci war a taxaw moo tax ñun ñëpp bu ñuy waxtaan lu mel nii danoo bëgg ñun ñëpp ñu bokk benn taxawaay ngir jàmmaarloog situation bees bi nga xam ne ni créé wu na ba pare te mi ngi fi ñu koy dund te xam ne buñ ko deful te jàmmarloog moom wurkutal ko ay ay solution ay yoon yuñ ci génne yu baax yu mat sëkk la muy jur ëllëg mooy askan woo xam kenn doot dund ci jàmm buñ ci waxul ñàkk dund ci jàmm foofu lañu jëm wala yaas billah te nag xew-xew yi amoon Sénégal bu yàggutoo njaay rek alerte la maanaam tegtal la ci ne war na noo xalaataat war nanoo xalaataat baax baax ne mbir ngi ñëw moo xam ne nii ñun ñëpp buñ boosawul ku nekk lañ nga war a wax nga wax ko ci la nga war a def def ko ci bis a ngi ñëw boo xam ne nii ku nekk da nga réccu booba baa nag day fekk réccu wees ku jàpp nag ne mbir mi yettu Seydina Moussa wa mooy ñëw rek la ko yaa ngi nax sa bopp ba tey mbir mi lu loolu yettu Seydina musa wooyee nam doon rek réglé mbir yooyee mënta réglé mbir mi ñu waxtaane dafa laaj jàngat bu xóot jàngat psychologie xale yi jàngat mentalité xale yi jàngat jafe-jafe yi xale yi jànkonteel dëgg dëgg ñu jàngat ko te bañ cee am benn parparloo bañ ci am benn xarma yàlla waaye ñu jàngat ko ko gisee jéem ko wutal ay solution loolu la mbir mi soxloon ñu gis nag ne ñun bokk na ci li tax situation bi demee ni mu mel te buñ koy jàngat war koo bàyyi xel bi ci njëkk mooy dañoo jëggaani dañoo dem ci yeneen nit ñoo xam ne bokk ñoo ñoom ci façon ci xeet yu bare bari ñu jëggaani ci ñoom wala ñu copier ci ñoom lañuy doxe ñëw di ko doxale suñu biir te soppiwuñ ca dara loolu moo ñu jural ñu dem ba diine ji nga xam bu démb ak bërki démb moom lañ gëmoon mu ñuy orienté di ñu teg ci yoon ñu dem ba gannaawal diine ji sunu valeur cëslaa yi ñu amoon nga xam ne ñun koo xamee sénégalais muy jom ngor fit yooyu ñu dem ba gannaawal ko bàyyi ko naaw kan mooy waxtaane léegi ngor ak fit ak jom nit ñi jomb daan dellu gannaaw ngor moom kenn waxtaaneetu ñu dem jëggaani ba fexe ba valeur yooyu nga xam ne ñu ko amoon mu cosaanoo ci ñun ñu wàññi ko delloo ko gannaaw suñu aada yi ñu amoon sax nga xam ne aada aada la woon maanaam xale di jox cër mag mag di yërëm xale nit ñi mbokk gi ñu koy toppatoo ñu dem ba loolu ñu koy wañ gannaaw loolu lu ko waral mooy dañoo dem copier système wala doxalin woo xam ne nii xëy na mën naa baax feneen waaye dëppwut ak ñun ba noppi ñoo jël ko nag di ko doxal te sax soppiwuñ ci dara fekkoon dañoo ñëw sax jël ko sopp yi lañ ci war a sopp ba mu dëppoo ñun ñu koy doxal xëy na du am jafe-jafe waaye dañ ko jël noonu rek ñëw di ko doxal copie googu ñu copie nag wala maanaam importé googu ñu importé wala jëggaane googu ñu jëggaane mbir yooyu nag moo tax jëflante yi baree bari commencé tasaaroo suñu biir jëflante ci wàllu xaalis riba ji ci feeñ ku nekk gis na ko te riba nag dafa yaatu jëflante yi riba ji feeñ moo tax léegi ëpplante gi jéggi dayo alal ji niñ ko seddalee riba bu tax riba kese kese moo tax nit di am ay lu ba gii jël kenn du am dara tey boo doon lim ñi am ay milliards Sénégal mën nga leen lim du ñu ëpp téeméer wala ñaar téeméer boo doon lim am ay ñi am ay millions mën naa am ay junni nga wax ñi am ay junni mën naa am nga wax ay millions waaye ñi amul dara ay ban ngaa wax ne fukki nag man genn wàllu population amuñu dara loolu nag maanaam bu kenn jàpp ni li liggéey la waaye li ci ëpp ci riba doxali mu jaarul yoon ci wàllu àll moo tax séddale bi jaarul yoon loolu nag boo amee moo waral nga gis ñaari xale yoo xam dañuy dend xale bi gis moroom ji mu am ba giijal bay yàq di dund bay yàq maanaam faj ay soxlaam ba jël alal di ko pasar pasaree xale bi di ko gis lu ko waral moom baayam haut fonctionnaire la maanaam maanaam maanaam liggéeykat bu mag la ci état bi moo tax moom muy doxe noonu léegi moom daa am bay jël waxuma la di faj ay soxlaam waaye day jël di yàq ñu koy gis te moom mi koy gis di moroomam nekk ak moom ci koñ bi moom man bu añee du reer ndax baayam ab baadoola la baadoola bu ñu ko waxee mooy ñaari jéeg li ñuy wax baadoola ak buur moo ñu feetu ci buur bi ak ñu féete ci ñu féetuwul ci moom ki nga xam bàyyam moom féetuwul foofa du yor dara bu reeree du añ bu nekkee du reer bu nekkee du añ xale bi di gis loolu mu naqari ko te mënu ci dara ñaari xale dañuy dend kenn kii si moroom ji ñu yóbbu ko ci école yi gën a baax lépp am fa njàng may dox na mu war a doxe du de benn bis moom école boobu la ko fa yóbbu ndax baayam daa tiim keesu réew mi di ca tibb na mu ko neexe di ko fayal mu ko def mu ko neexe dugal ko ci école boo xam ne nii maanaam lu ko fi lépp fa moom mi nga xam bàyyam nekkul foofu nag gis nañu dugal ko ci école boo xam ne nii dara amu fa dara amu fa taawal baa bu mu toog sax amu fa salle de classe bi muy dugg sax amu fa da dem barab yoo xam ne nii xale yi bi ñu jàng ci garab la ñuy toog ron garab la ñuy toog ay birig la ñuy tegale toog ci birig yooyu ñu tegale ñoog jaan yéeg jiir yéeg mbott yéeg fel yi ñoo koy bokk loolu lu ko waral lu tax kële nu def ko ci école boo xam lépp fa am muy jàng na mu war a jànge dara ndax baayam daal tiim na kees réew mi ñëpp ko bokk mu cey tibb def na ko neex kii nag baayam tiimutu kees amul dara ñu teg ko ci école boo xam dara amu fa dara amu fa moom loolu moo muy tënk loolu séddalin wu ñàkk a jaar wu dafa feeñ ci doxaliinu xale yi bu ñëwee ci wàllu relation sociale yi nga gis ne moom itam jëggaani guñ jëggaani moo tax li ma waxoon léegi ñu ñàkk ko léegi ana ci ñun kan mooy sàmmoonte ak dëggu ci jëflante bi kan boo koy xool daanaka ñu néew da nga naan léegi àddina bi mën nga naan dëkk bi léegi maanaam wala boog maanaam yëf yi ñi ñi maanaam ñi dëgguwul ñu ëpp ñu dëggu koy jëflante léegi kenn wóorutul kenn maanaam koy sëqal ku nekk jàpp nga da leen xam lu ko waral mooy naafeq gi moo bari ci àddina moo bari ci diggante yi léegi nit kiy feeñal lu mu gëmut am na ci diine ji am na ci politique bi am na fu nekk ci relation yi dafa yàqu nit kuy mbubboo diine te gëmu ci dara nit kuy mbubboo idéologie politique te gëmu ci dara xale yi di ko gis warante gi ci biir ànd ak nit ba mu yàgg ngeen def lépp bokk lépp nga xëy war ko ndaw ñi di ko gis loolu ba noppi nga di ko tudd maanaam tricher maanaam maanaam wuruj wala boog kooj wala wuruj ci jëflante loolu lépp mi ngi fii ñu di ko gis mu nekk ci biir relation yi nit ki mën a taxaw diggéen lu rëy a rëy bu def jotee def dara loolu ay yàqu-yàqu la yoo xam ne ni mu ngi ci biir doxin wi bokk na ci li tax xale yi situation bi ñu toll tey bokk na ci li ci bu ndaw ñi lu mel noonu ci la bokk repères yi ñu daan jox xale yi nga xam ne tey ku nekk dañ lay jox repère ne la ah royal ci diw wala bokk diw dey ku baax la ñu koy xool jàppe ku baax loolu am na lu ci diggu léegi waxoon naa ko léegi ay woote foo na gis kuy woote mën naa am koy woote ci diine yi woote mën naa am koy woote ci politique lay woote te moo ne boo duggoon ba ca biir nga gëstu koy woote la tax muy woote wootewul lenn lu dul njariñul boppam kese te boo da ngay dugg ba ca biir nag doon koo xam nga gis ay njiit yoo xam ne nii dañuy rëbb ci ndox mu nëx dañuy bàyyi ba ndox mi nëx ñëw di rëbb diini ñu ci diini koy def nitu politique di ko def nitu àddina yi ci des ñëpp koy def maanaam dañuy bàyyi ba ndox mi nëx ñu ñëw di rëbb ay nit ñoo xam ne ni ay profiteur lañ leen di tuddee maanaam koo xam ne ni intihaas yi mooy koo xam ne day bàyyi ba situation bi mu ñëw moom defar ci gis nañ ko ci biir yëfi ci doxalin ni loolu lu mooy maanaam relation yi ñu dox wala boog jëggaani guñ jëggaani système boo xam ne dëpp wut ak ñu cay dox mag ñi yematuñ ci loolu léegi léegi dañuy fexe yàq xelum xale yi maanaam dañ leen di jox lu mel ni am ñoom lu dorog maanaam dorog ñu baal ma jiitu waaye dorog dañuy dorogi xelum xale yi fexe ba def leen ay nit ñu doyadi ñu faible ñoo xam dootuñu am kàttan ndaw lu amul kàttan ndaw lu néew doole ku nekk xam na ndaw fi ñu koy jaar ba néewal ko doole xam nañ ko dañuy fexe ba xale yi nekk nit bànneex nit koo xam bànneex dong lay gëm bànneexam daal lay wut am na fii ci réew mi barab boo xam ne kilifa toog na fa toog ak ay ndaw di leen séddale di leen may ay fegukaay fegukaay bi ma ko waxee mooy loo xam ne nii góor ak jigéen mën nañ koo jëfandikoo séq ba nopp bu ñu ko jëfandikoo mën na am dara di ci juddoo ñu toog ak ay ndaw di leen ko may ñu koy jëfandikoo di leen ko may am na xale yoo xam ne nii keroog lañ ko mas a waaye comme gis nañ ko daan ko essayé loolu luñ ci mooy dañuy ba nga nekk nit koo xam ne nitu bànneex nañ fii ñu jël am ñollu di ko def ci ay sachet di ko jaay ñaar fukk ak fukki dërëm ci école yi ñu koy gis xale yi di ko jëfandikoo loolu dañoo jàpp ne maanaam maanaam maanaam lu njuumteel du njuumteel système la boo xam ne nii lu ñu ji ci nit ñi la bëgg a fexe ba xale yi nekk ak doye ak néew doole juddu ci ñoom loolu lii lii ma tudd nii nag neexul ba neexul mooy situation yi yëf yi nii la mele neex na wala neexul nag leneen la waaye daal moom mbir mi nii la mel kon nag situation bu demee nii nag laaj na waxtaan ak xale yi laaj na tam mag ji nga xam ñoo ne ci kanam xale yi ñu waxtaan ak seen biir ku nekk itam xool li ci sa responsabilité nga jëm ko assumer maanaam nga jëm koo gàddul sa bopp la nga war a def nga war a def ko ñu war a wax nañ wax ñu war a jëf nañ jëf ñu war a tege ci yoon nañ tege yoon ñu war a jubbanti di jubbanti lii mooy li nga xam ne nii defe naa ne bu ko deful nag lii xew ëllëg bu mu bett liñ ci bëgg a nag ñun te mooy suñ suñu wàll ci liñ ci bëgg a jugale danañ waxtaan ci ak ndaw mooy lan ban solo la am charte yi nga xam mënta ñàkk mu daje ci ndaw ñi bu ñu bëggee ndaw ñi nekk ndaw ñuy defar ëllëg su ko defee daañu wax tuuti tam ci maanaam banqaas yi nga xam ne ni jàpp nañu ndaw ñi mën nañ fa yëngutu di dafa jubbanti ak a ci xeet bi suñ noppee dooru tëj waxtaan loolu mooy tomb yi nga xam ne nii moom la ñuy tënk ci biir waxtaan buñ nee ndaw mooy lan dañu gisee nit bu juddoo bu juddoo ba noppi ak dundam boroom xam-xam yi gëstu ci fànn bi dañ koy séddalee lu mat juróom benni xaaj am na lu ñuy tuddee maanaam ndaw gu ndawe mooy xale li ñuy wax petite enfance tufa la mu bakkira mooy bu tàmbalee ñaari ati xale bi ba kër may am juróomi jàpp juróom benn at loolu la ñuy tuddee ndaw bu ndawe xale bu ndawe bu ca jógee juróom benn at ba fukki at ak ñaar mooy xale mooy xale bu amee fukki ak ñaar ba keroog may fukki at ak juróom ñett léeg mu dem ñaar fukki mooy li ñu tuddee adolescent maanaam koo xam ne nii mooy ku mooy mooy ku toll ci baalix ku toll ci baalix bu jegee ci ñaar fukki at wala juróom-ñett ba keroog mi am fanweer ak juróom kooku la ñuy tuddee waxambaane bu jógee ci ak juróom ba keroog mi am juróom benn fukki kooku la ñuy tuddee ab dori mooy këhël bu amee juróom benn fukki jëm kaw nag kooku la ñuy tuddee màggat ba keroog mi faatu màggat lañ koy tuddee juróom benn xaaj yooyu moo gën a siiw ci ñi ñuy séddalee dundu doomu adama jamono yi toll nii di borom xam-xam yu bare bari di ko sukkandikoom waaye séddaleen woowu nag dafa am rëq-rëq bu ne ci biir mooy buñ nee la yow fanweer ak juróom ci la sag ndaw yem teñ jàpp ne ak waxambaane bu jàllee ak néew doole moo ci topp ñu bari loolu lañ gëm kon da jàpp ne fanweeri at ak juróom su ma ko amee te li ma war am amuma ko noppi naa ko am loolu moo tax xale yi dañuy yàkkamti loolu moo jur yàkkamti ci xale yi ku nekk da naan man daal comme fanweer juróom ci la sama ndaw yom sama waxambaane foofu la yem la ko la ci topp ab wala demi pas laay doon wala yu mel noonu kon su ma amee fanweer di juróom te réussir mooy dootuma réussir moo tax xale yi dañoo yàkkamti léegi te loolu moo ko jur ndax dañoo gëm ne bu ñu xasee weesu foofu mënatuñu ci jàll moo tax yàlla mi xam nit dëgg-dëgg xam si ko psychologie doomu aadama dëgg-dëgg gën ñoo jege suñu bopp moom ñetti xaaj dong la ko def nit bu juddoo ba noppi ñetti dong la ko def xaajub néew doole fi muy néewee doole ak fi muy amee doole ak fi muy tëlee néew doole am doole ak tële ñetti xaaju yi dong la ko def seddin woo lu muy jariñ mooy lan mooy gëmal ne kon li fekk yaa ngi man li fekk kàtt nañ ci yow gëmal ne maanaam réussir weesoogut ci yow li nañ ci yow réussir weesoogut ci yow kon jërul yàkkamti am ñoo xam tey seen objectif bi ñu ko laataa réaliser am nañ juróom benn fukki am na sax ñoo xam am nañ juróom ñaar fukki at door am lañ doon wut seen dund waaye nag bu ñu la gëmaloon ne la fanweer ak juróom moom ci say man-man fi lay yem da yàkkamti dangay ngay njëkkante kon lislaam man wala bokk sunu bopp subhaanahu wa taala xam gu xam doomu aadama moo tax mu séddalee ko noonu moo tax kon xale yi nañ gëm ne kon li feeg yaa ngi am kàttanu def ak yaa ngi am kàttanu def jàppal ne réussir weesagul caw kon bul yàkkamti bul kërëf kërëf bul bul falax-falaxi bay dugal sa bopp loo xam ne nii xamoo te nag yàkkamti nag mooy fiir gi nga xam moom la seytaane teg ci kanam ndaw ñi pour fàttali leen mooy yàkkamti tey boo déggee ñu ne la xale bi am fukki ak ñeent dugg na ci gaal goo xam ne nii ay ay jën la war a def mu dugg ca dem ba ci diggéej gi mu lab ca faatu ñu ne fa mu jëmoon ñu ne doon wuti xaalis loolu yàkkam féetu kaw fukki at ak ñeent kooku jàng dong la toll kooku nëgë ni ci école ba la ko doon fekk BFEM sax waru ko am maanaam certificat lay am dugg kat jëm quatrième foofu lay toll maanaam kooku bu faatoo ak ak ku mel ne moom faatu ci biirum ndox te ay waajuram bokk ci la ko ci dugal loolu yàkkamti dong la yàkkamti kese tey bu nee la soxna si toolu diggante boo war a toll ci am doom am na doom ci biir gaal gi loolu amoo leen loo koy firee lu yàkkamti kon yàkkamti séddalin woowu ñu séddalee dundu doomu moo tax xale yi di yàkkamti kon gëm leen ne séddaleeb bi yàlla bi moom mooy séddale bi jaar yoon moom mu lañu war a jël mooy dangay ngay néew doole nekk xale tout tànk am kàttan dem ba tële li fekk yaa ngi am kàttan nag jàppal ne àgg fi nga am fi nga jëm weesoogu kon ne ko ñee tëddee noonu la waaye ñun niñ ko déggee mooy diggante bi ngay amee kàttan ak man li fekk yaa ngi man rek yaa ngi sag ndaw mu am nag ay xale yoo xam ne nii gis nañ ne ñu ngi commencé xam loolu baax di yëgtam seen rôle ci biir askan wi yëgit seen am solo ci biir xeet bi ñoom demal nañ seen bopp ba xam ne ñoom ñooy essence biy dawal xeet bi ku nekk xam na ne oto gasoil wala essence moo koy dawal waaye oto bu amul gasoil amul essence bu dee oto bi jël gasoil almuhim wala oto bi jël essence lu mu ci man di doon bu ko amul du daw boo jëloon gasoil bu baaxul wala essence bu baaxul def ko ci oto taal ko bu dawee itam daw ba du yàgg ndaw ñi noonu lañ mel ci biir askan mi askan wu amul xeet wu amutul ndaw askan wu du dox xeet woo xam ne ni saw ndaw saw say ndaw meluñ nañ war a mel itam boo dox itam dox ba du yàgg loolu am na xale yoo xam ñu ngi koy commencé xam kon ñoom xam nañ ne buñ baaxee xeet wéppay baax waaye bis buñ nërmeeloo xeet wéppay nërmeel moo tax képp kuy xeex aw askan yaa ngi koy tàmbalee ci ndaw ñi fexeel ba nërmeel ndaw ñi bis boo nërmeelee ndaw ñi rek xeet xeet wi nërmeelu loolu ñoom xam nañ ko di jëfandikoo moo tax ndaw ñi ñoom ñoy essence bi dawal oto bi waaye tam ñooy làmp bi niital askan wi boo fexe ba làmp bi fay itam bu lëndamee nit ñi duñ dox loolu kon am nañu ko bàyyi xel lool lool lool moo tax nit ñi léegi ñiy defar ak ñiy yàq ñëpp xale yi lañu soxla yëg-yëgu xale yi lañ soxla fi mu nekk nii boo xoolee tey ñi yor ay mouvement ay yëngu maanaam ay ay mbooloo yoo xam ne nii yàqal leen tax a jóg fi mu ne dëkk boo dem ndaw ñi lañ soxla ñu ngi njëkkanteeg ndaw ñi di jël seen xel réew yi lépp dugg nañ ñu bari na ñu ngi toog di leen seetaan ñuy def la ñuy def. day mel ne kenn amul responsable ci liy xew te moo ne day ñoom la ñuy def bis bu bis bu ñu ko amee la ciy juddoo ñun ñëpp ci suñ kaw lay dal kon ñi am ak njaboot seeni kër war na noo jóg sëriñ si kilifa yi mag ñi ci koñ yi war na ñoo jóg ñiy yar ci école yi wala ci daara yi war na noo jóg njiit yi ñoo xam njiitu diine njiitu àddina war na noo jóg képp koo xam yàlla may na la yëg-yëgu biir bii dund war ngaa jóg ndax bu ñu deful lool kat bu ñu xawee fi ba yëf yi weesu ba lay am am moom defar gi bees na kenn mëntu ko defar am na mbir loo xam bu xasee am moom xanaa lu bees ngay sos waaye defaraat gi moom dootu fa mën am te moo ne tey koo gis mi ngi jàmbat ñun ñëppay toog jàmbat naan jamono ji daa yàqu jamono ji jamono ji ñenn ñi sax di jéem a nëbbu ci gannaaw yàqu-yàqu yi jamono ngir daw seen responsabilité war a yar say doom yaroo leen bëgg koo jiñ jamono war a jàngal say doom jàngaloo leen bëgg koo jiñ jamono xaagada loolu daw sa responsabilité la nit ki jamono ak lu mënti xew ñun ñooy jamono ñun ñëpp kon ñoo ngi daw kenn ku yaa ngi daw say responsabilité ka daw xeet wi responsable bi nga amal xeet wi ci defar xale bi nga nekk sa loxo nga war koo defar ba mu amal njariñ xeet wi nga bañ koo defar responsabilité la boo xam ne ni danga koo daw sa digg xeet wi daw nga sa responsable diggante sa diggante histoire taarix te taarix nag histoire du yërëm kenn képp koo gis ñu ko fiy tudd di ko fàttaliku léeg-léeg nga dégg di tudd diw di ci joxe di ci joxe misaal mooy ñoo xam ne nii dañoo jaayoon seen bakkan jaay seen alal ngir jariñ seen askan histoire faye leen seen tur seen tur dootu jóg ba mukk jàmbaar yi ñooñu nag jàmbaar yooyu nga xam ne ñoom dañoo jaayoon seen dund lépp sacrifié ko leen ko ndaw ñi ngir jubbanti leen am na ci ñoom koo xam ne nii jarul ñuy tudd turam mas naa taxaw ak ay ndaw di leen waxtaan ak ñoom di leen conseil waaye di leen wax seen solo ji ñu am ci biir xeet bi daf leen wax ne leen yéen xale yi maa ngi leen xamal mbir de mooy ne leen xalaat bi ngeen gis mu jàll mu réussir xalaat bi ngeen gis ñu togg ko mu ñor ñu jëfandikoo ko mu baax ñeenti mbir mënu caa ñàkk mu ne il faut am ngëm-ngëm bu dëgër bu ànd ak xalaat boobu di dox il faut ñu am ñu sellal ñoo xam ne nii dañuy def rek xalaat bi tax bëgguñ ca dara sax waaye dañuy def rek ngir xalaat bi taxaw il faut ñu am mel ñu mel noonu il faut ñu am ñu am xër xamaas xamaas mooy enthousiasme maanaam koo xam ne dafay am xër ci biir xër ci li ngay def il faut ñu am ñu xër ñoo xam dañuy bëgg xalaat bi jàll ànd ci mu door a jàll il faut ñu am ñu am kàttan ñoo xam dañuy mën a jëf xalaat bi door a mën a jàll moo ne leen ñeenti ponk yooyu nag mooy ngëm gu dëgër mu ne leen ñeenti ponk yooyu nag te mooy ngëm gu dëgër sellal gu mat sëkk xër gu mat sëkk am kàttanu jëf ju mat sëkk nee na loolu ci ndaw ñi rek nga koy gis pas-pas bu dëgër boo ko bëggee gis dëgg-dëgg demal ci xale yi waaw sellal dëgg boo ko bëggee gis demal ci xale mag ñu baree bari dañuy kifin xàgg na nangoo joxe sa bopp ci dëgg-dëgg boo ko bëggee gis ci xale yi ngay dem mu ne ñeenti ponk yooyu nga xam ne mooy tax xalaat di réussir ci xale yi dong nga koy fekk mu ne moo tax nag mu ne leen nag looloo tax nag ba àdduna sosoo ba léegi démb ak tey ci yem nee na wépp xeet woo gis mu am li ñuy wax renaissance te mooy jógaat buur jógaat jëm ci kaw nee na wépp xeet woo gis mu toll foofu jàppal ne keneen yoo koy taaw mooy xale yi renaissance boo gis keneen yu koy taaw mooy xale yi nee na renaissance boo gis kàttan gën a ci biir ba tax muy jóg mooy ndaw ñi xale yi xalaat boo gis ka koy garde ba teg yëkkati ko mu jëm kaw nee na mooy xale yi moo tax mu ne kon xale yi am ngeen solo ci biir askan wi mu ne leen nag bu leen naagu ndax naagu bokkul ci melokaanu jullit waxul sax bokkul sax ci melokaanu doomu aadama ku am pëstéef ku am yitte ju kawe doo naagu ku am yitte dëgg-dëgg pëstéef bu kawee doo naagu da ngay jàpp rek ne mbir mi maa ngi ci te dinaa ko am fële laa jëm ci parfas dama fay àgg doo naagu mukk doo découragé mukk doo dellu gannaaw mu ne leen li ngeen jàpp tey muy ay réalité ñu koy dund tey nee na barki Demba Njaay ay gént la woon ay jamono ñëwoon na boo masaan toog fii ne damaa toog fii di waxtaan day ñu may seetaan ci Amérique dañ naan la yow da ngay gént ñi fi njëkk wax ne suuf si daa wëndeelu day dox di wëndeelu ñooñu dañ leen rey ndax dañu leen yéen da ngeen wax ay waxi dof la dañu leen rey ñenn dañu leen lakk ñenn ñu rey la mu ne leen la nga jàppoon ne kon loola ñu jàppoon ay gént la woon tey jii mooy ay réalité ñu koy dund mu leen nag li ngeen jàpp ne gént la tey jii ëllëg mooy doon réalité yi ku mënta génn tey ëllëg du am réalité kon dangay gént ngir ëllëg nga am loo réalisé loolu leen wax mu leen kon jàpp leen ne li ngeen jàpp ne tey ngeen koy dund mooy lu normal ñëpp jàpp ne lu kii la kenn kii bu njëkk bañ koy waxtaanee ay gént la woon kon nag li ngeen di gént tey fi ngeen war a àgg ëllëg di ko génn tey ëllëg day nekk réalité ñu bari jàpp nañu ne tey ñun mënuñoo tàggale ko tubaab yi waaw buñ ko boo ko wax dañaa ñëw da ngay gént bis dana ñëw ku am bu ñu amee positif dox jëm ca bis dana ñu àgg ci kon àdduna mi ngi xaar xale yi woo bi leen di woo mi ngi leen di xaar di xaar ngeen di ngeen rëddaat yoon wu tegu ci ñu ngi leen di xaar ci génn ñi jafe-jafe nga xam moom àdduna bi dund ñëpp di ko jàmbat xale yi la ñuy xaar ñu génn ci kon xale yi na xam ne am nañ solo ci biir askan wi te mënuñ cee ñàkk loolu lay wax kon jàpp ne mbir yi dana soppiku ëllëg ku ko jàpp te tàmbalee ko ci xale yi dangay nax sa bopp kon il faut liggéey bi ci ndaw ñi lay tàmbalee wu léeg ñu joxe ci misaal ne la aw askan mi ngi mel ne garab garab gi nga jëmbat si buntu kër ci misaal ñun la da ngaa jëmbat garabu niimaa yaa ko jëmbat sa buntu kër di ko roose di ko arrosé di ko falet di ko toppatoo ba màgg léegi nag boo ko defee noonu ba màgg nag ba war a meññ nag nga ne ko ay màngo ngay meññ boobaa tooñ fi mu nekk nii sunu mag ñi ni ñu mel nii noonu dong lañ mën a mel mënuñoo joxe leneen mënuñoo joxe leneen nii dong lañ mën a mel moo tax liggéey bi mi ngi ci xale yi xale yi lañ war a liggéey ñoom ba ëllëgee ñu jox ñu meññet mi nga xam ne nii moom lañu bëgg moo tax dañuy wax ne mépp mbir mooy xool boo xoolee ci biir gisoo ci benn bopp bu ñuul ay kawar yu weex dong nga fay séen xamal ni mbir mooy balaa yàgg mu jeex waaye lépp loo xam boo ko xoolee yaa ngi seen ci biir ay bopp borom bopp yu ñuul kese ay xale kese nga ci seen xamal ne mbir mi am na avenir kon avenir mi ngi suñ kanam mi ngi seen loxo ñu war cee liggéey ànd ko ak lépp loo gis mu taxaw ci àddina bi ay ndaw a ko taxawal lislaam ji tey ba muy taxaw ci ay loxoy xale yi tuuti ñoo ko taxawal Seydina Muhammad ci ñeent fukki atam wala yu mel noonu ci la ko yàlla def yonent ñam àndaloon di ay xale ne moom mu leen di orienté di leen di guider di leen di jubbanti ba tey yëf yi àgg fi mu àgg lu génn ci lislaam tey luñ produire lépp lu islaam intaaj mu nga déparé ci xale yooyu sëriñ bi radiyallahu anhu bi mu ñëwee dafa njëkk xam ne moom bi mu laataa dara daataako dafa xam ne mbir mi kat mi ngi ci xale yi xale yi tàmbalee ci xale yi la yem te mag mu xas màggat kenn mënu koo soppi boo ko bëggee jubanti mu dam mu far mag moom boo ko bëggee jubanti day far dam mu ngi mel ni bant rek dañ naa bant bi da nga bi muy tooy waaye bu xasee woo moom boo ko jubantee mu damm moo tax sëñ bi teel naa xam ne moom mbir mi ci xale yi nekk mu jëmale liggéey bi ci xale ci boppam ci ayat du woon mag bi muy tàmbali liggéey waaye ñi ko àndoon moom ay benn wala ñaar ñoo ko ci féete woon mag ñi des ñëpp moo leen féete woon mag ñëw ñu la sëñ bi àndal def ci ñoom li def ci ñoom teer yi njëkk a taalif yëpp mu jëmale ko ci ndaw ñi tasawudu sixaar tasawudu subaan nahju yëpp ndaw ñi lay waxal ndax dafa xam ne ndaw ñi ñoo mbir mi di leen xemmemloo di leen encourage di leen ànd ak ñoom di liggéey ba tey yoonu murit àgg fi mu àgg kon ndaw ñooñee tey bu yoonu murit àggee fi mu àgg liggéey bi àggee fi mu àgg tey ci loxoy ndaw ñooñee ñoom lañ koy sant kon nag bu ñu bëggee itam liggéey bi kon ne itam nag liggéey boobu sëñ bi doon liggéey ci ndaw ñi noonu tam dañoo war a kon di ko liggéey ci ndaw ñi xale yi nga xam ne nag ñoom lañu bëgg a war a liggéey ëllëg dafa am ay charte yoo xam ne ni mën ta ñàkk ñoom mooy tomb ñaare bi ci waxtaan charte yi nga xam mën ta ci xale pour xale bi joxe li ñu yaakaar ci moom bi ci jiitu mooy jàng xam-xam nit ki lu mu amul mënu koo joxe ku xamut mën ta jubanti nit ki lu mu xamut mënu koo joxe bépp jëf ak son bopp yëpp yitte joo xam ni tam koy def te xam-xam lalu ko du jaar na mu war a jaar du mel na mu war a mel il faut kon dañuy jàng ba xam ba am compétence door a mën a jëf sëñ bi teel na ko bind jàngal ko ndaw ñu ne leen bépp jëf joo xam ne nii xam-xam lalu ko nee na moog pënd boo jëri mu ànd ak ngelaw li naaw di wéy ñooyam la ngay def lépp boo noppee day mel ni pënd boo xam ne danga koo jëri mu ànd ak ngelaw li naaw di dem du am kon xale yi nañ xam ne xam-xam mooy laytaay mbir mi yëf yi door jaar yoon tey ku ñu raw ci àddina bi xam-xam dong la ñu rawee xam-xam dong la ñu rawee kese waaw buñ nee laa tey Corée du Sud ba ñuy am indépendance 1964 moo mook Sénégal ñoo tolloo woon ci lépp nattukaay yëpp ñoo tolloon tey man su pat dentifrice bi may may raxas sama gémmiñ sax Corée laa koy jële ji lu tax xam-xam xam-xam kese moo ñu mën a génne ci yi kon xale yi nañ teel a xam ne jëf ji sëñ bi teel na ko jàng ne leen bu xam-xam amul compétence amul dañuy sonn te njariñ du am njariñ waxaat bindaat wax leen ne leen yéen xale yii bu ngeen bañ am kerse ëllëg jiital leen xam balaa ngeen a jëf tey bari na kuñ teg ci barab def foo lañ ko def loo du ko fa wax du ko fa def ndax xamu ko sax bi di ko def wax dëgg yàlla léeg nga ñu jiital la moom moom ci boppam sax yi mu ci am kersa xam ne mën te jiite kon xam-xam bi mënta ñàkk kon njàng mi mooy jiitu xam-xam bi ñuy waxtaane fii nag bu xam-xamu diine kese wala xam-xamu àdduna kese loolu sax ñun ñoo koy waaye xam-xamu diine xam-xamu àdduna amul xam-xam rek moo am mooy xam-xam boo xam daal day boole liñ soxla ci àddina ak liñ soxla ci àllaaxira liñ soxla ci diine ak liñ soxla ci àddina daf koy boole xam-xam boobu mënta ñàkk ñu liggéey ci ndaw ñu nangu ko sàkk ko bu ko defee mu doon maanaam tegukaay tànk bi nga xam ci la ñu teg suñu tànk ëllëg ngir mën a dox xam-xam boobu il faut man yar defar ndaw ñi il faut ñu defar leen ndax nit ki boo ko defaree te joxoo ko xam-xam bàyyi ma ngay defar bàyyi ma moom la tàggat léegi da ngay dégg ñaan dañuy tàggat ndaw ñi tàggat kenn du ko def nit nit kenn du ko tàggat bàyyi ma la ñuy tàggat bàyyi ma boo ko tàggatee mën naa dem bay def la nga bëgg mu di ko def lépp waaye moom yow yaa koy jariñoo waaye moom du la du la jariñoo kon xale nit dañ koy defar xale dañ leen di defar bu fekkee da ngaa defar nit bu fekkee da ngaa tàggat nit ki jàngaloo ko nag kooku moom bàyyi ma ñooyam waaye tam buñ jàngalee xale yi te defaruñ leen nag moom moo yées lu yàq lu yàqu ci àdduna bi foo gis mu yàqu nit ku nit ku am man-man te yaruñ ko nit ku am xam-xam te yaruñ ko moo ko yàq loo fi yàqu rek kuñ jàngal te yaruñ koo ko yàq kon defar boobu dafay ànd ak njàng mi defar bi nag lu ci jublu mooy ñun am nañ suñuy valeur am nañ suñu ceslaay am na suñu jikko yoo xam ne nii dëppoon na ak suñuy pas-pas ak suñuy aada ak suñuy cosaan dëppoon na ak suñu citoyenneté bi ñuy woote ñun loolu lañ bëgg ñu defar ko mooñ ko mooñaale ko ci biir école bi mooñaale ko ci biir daara ji di ko jox ndaw ñi ñu màggaale loolu mënta ñàkk moo tax sëñ bi noonu bu yàgg di wax ak ndaw ñi ne leen xam-xam bu bari te àndut ak teggin nee na ak coono ak loraange dong lay jur former seen bopp former former mënta ñàkk former xale yi jàngal nit ak defar ko ak former ko dañoo bokkul former ne mooy tax nit ki am compétence compétence pour nga am ko dañ la ciy former dañ lay former loolu mënta ñàkk ku nekk si ëllëg li ngay mel ni nga war a mel ëllëg mooy ni ñu la former bi ngay nekk xale. maçon dañ koy former bu màggee nekkub maçon mécanicien dañ koy former bu nekk bu màggee nekk ko métier boo gis dañ ciy former nit bu màggee nekk ko naka noonu tam xale yi ñu jàpp ne ëllëg noonu war a jiite dañ leen a war a former ci nit ñi jiitee mbooloo. njiit dañ koy former njiit du njàng kese du lu ñuy doon tam waaye lu formation la bu ñuy def ci nit donte nag doon na mën na la caa dimbale njàng mën na ci dimbale waaye formation la bu ñuy def ci nit kon ñi ñu jiite dëgg méccam jiite moo gën a jafe ci métier yi buñ la ci formé doo ko mën kon nañ jàpp ne xale yi mënu ñoom avenir mukk mënta baax su fekkente ne njàng mi yar bi formation bi tegul ni mu war a tege kon loolu mënta ñàkk kon loolu sart boobu moom mënta ñàkk ci xale yi pour bu ëllëg ñoom ñu mën a taxaw taxawaay bi ñu war a taxaw xale yi itam il faut que ci biir njàng moom ak yar boobu ñu conscientiser leen conscientiser mooy ñu fexe ba la war ci àddina bi liy dox ci àddina bi nga xam ko bu ñu la tëj kenn du la tëj dañ lay bàyyi liy daw ci àddina bi nga xam ne ci daw ba noppi ñu fexe ba nga am ci position bu leer nañ loolu mooy li am solo kon lay xew fépp na ko xale yi xam waaye nañ fexe nag ba ñoom ñu am ci position bu leer nañ ñi boo xam dañuy xam ne fii lañu war a taxaw ñu taxawee ca noonu mënta ñàkk ci biir njàng meeg yar beeg forme bi bu ñu tëj xale yi lañ leen jox ouverture maanaam infitah nañ leen ubbi tëj moom fu nekk nii tax di ko wax daani sax wax dëgg yàlla daanaka kii la waaye nag ubbi gi ñu wax ñun waxuñ nga dem seey seey moo baaxul am na ñoo xam ne nii bu ñu leen ubbee dañuy dem ba ñoom seen bopp dootuñu am dañuy seey ci ba ñañ fekk dañuy seey ñoom dootuñu am loolu nag la ñuy bañ waaye dañoo bëgg nit ki am ouverture ba pare am enracinement maanaam mooy mu sax ci ay reenam ba noppi boole ko ubbi ay caram nag mu jëm ci kaw loolu mooy garab garab day sax dëgër ba noppi car yi ubbi ko génn loolu lañ bëgg ci xale yi xale boo xam ne nii day sax fi dëgër ba noppi nag ubbi ko am xelam ubbi ko mu mën a jëf leen ak ñëpp loolu mënta ñàkk ci formation bi ñuy former xale yi il faut ñu wutal leen référence ak royteef bu rafet. loolu dem ñu xamal xale ne leen royteef mën da ñàkk nit da ngay am repère da ngay am delluwaay da am koo teg sa kanam mu nekk sa modèle boo xam ne nii kii ne moom lay mel wala ma weesu ko al muhim moom ngay teg sa kanam moom ngay teg sa kanam koo gis mu jàll ci àddina bi rek am na model bu mu tegoon ci kanamam même modèle ba bu amul yow yow yaa koy créé boo xoolee la wër lépp gisoo ci modèle bi nga bëgg da koy créé xalxu ko créé ko teg ko sa kanam ni man ku mel laa bëgg a doon dox jëm ci mënta ñàkk te moytu nag woote yu bari yi moo xam léegi tàmbali bi bàyyi leen xel ci ne lépp lu nekkul ne lépp loo gis mu wëndeelu rek ku rek aw miskil la waaw ah, léeg-léeg nga jël loxo boo ko degee say bëñ moom sa bëñ dana damm kon nañ ko bàyyi xel xale yi nañ teel a bàyyi xel ci ne wut leen royteef wut leen repère wut leen model bu ngeen ko gisee ci leen wër fa lilaay alhamdu te am na fi su ngeen ko gisut ngeen wutal ko seen bopp créé ko teg waaye na ngeen bàyyi xel ci ne bari na woote yoo xam ne nii ay fiir lañ am na ñuy fiir ci turu diine am na ñuy fiir ci turu politique am na ñuy fiir ci turu xeet par parloo ci xeet profitaar yi dëgg-dëgg intihaas yi dëgg-dëgg dañuy làqatu ci gannaaw yu mel noonu ngir régler seeni jafe-jafe maa ngi yow ñoo bokk xeet ñoo bokk làkk nangu nang nang ba xëcc la ba dugal la ci lu mel noonu dugal la ci boo xam ne nii moom moom dong moo cee jariñoo maa ngi yow ñoo bokk sëriñ ñoo bokk tarixa xëcc la ba dugale ci loo xam ne nii moom dong moo ci jariñu maa ngi yow ñoo bokk parti politique yu mel noonu yooyu xale il faut que ñu koo bàyyi xel xam ne ñiy woote ñi cëpp seen mbirum bopp la woote nosu mën da ñàkk biir bi ñuy formé xale yi il faut que ñu boole ci ñu nos leen organiser wu mën da ñàkk ci nit nit day organiser àddunaam dund dañ koy organiser jamono ju nekk boo ci tolloo da ngay xam ne lii laa war a def nga ne ca loola boo ko defee ba noppi door a jàll ci la ci des bu fekkee da ngaa tëb jàng dem liggéey liggéey ba du baax kon lu nekk dafa am foo ko war a defee nga di ko def dund tam dañ koy planifier plan ni ngay plan sa kër ni nga bëgg sa kër mel ko noonu tam ngay planifier sa dund ni nii laa bëgg mu doxee noonu di ko doxee noonu il faut que itam ñu fixer objectif nit te mënoo ko bàyyi mu dox noonu rek fële lañ a dem te rëdd yoon wi jaar ba dem fa dañ naan fële lañ bëgg dem yoon wi la ñuy jaar ba dem fa mën ñàkk ci mbir mi kon daal bu ñu ko doon il faut que ñu ne dañ naan lan lañ bëgg fan lañu bëgg dem ak na ñuy def ba dem fa ñaar yooyu mu mënta ñàkk ñu bopp xale yi fan lañ a dem ak wan yoon la jaar ba dem fa loolu day bokk ci formation bi ñuy former xale yi mënta ñàkk moom tam fexe ba xale yi bëgg liggéey nangoo sonn loolu il faut ñu fexe ba def jëmbat ko ci xale yi bu ñu leen di formé ñu formé nit koo xam ne ni day nangoo sonn gëm ne moom dafa war a ñaq pour jariñu dafa war a ñaq pour jariñu loolu lu ñu war a teel jëmbat ci nit ki lay doon mu màggaale ko te bàyyi nag léeg-léeg nga dégg ñu ne wolof nee na wolof nee na li cëpp nag wolof lu lay wax boo ko gëstoo ba ci biir léeg-léeg day am ay ci biir léeg ñun la xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti njuumte la xaalis bu baax dañ koy liggéey. xaalis bi nga liggéey mooy bi la lew mooy boo xam boo koy lekk da ngay am conscience tranquille doo yëg ay jafe-jafe loolu lu ñu war def ci xale ñu nga xam ne dangaa liggéey ngir yor sa bopp fexe ba xeeb métier ñu génne ko ci xale yi man damaa ñëw fekk sama way jur mu ne ci mbaar yor ay uppukaay di upp di defaree ëllëg rek yi machine ak yu mel noonu bu ma ko xeeb naa jàng ba noppi su ma jàngee ba noppi mbaar moom naa ñëw jëm koo développé mu xëy nekk usine tey bari na tur yooyu tégg ay nit la turi nit la ay nit la xam ne am mbaar lañ yoroon di ci dëgg ak def yu mel noonu ba xëy yor usine et entreprise yu mag a mag defari oto yu mel noonu Ford nangam ak nangam Mercedes Benz yooyu ay turi nit la yoo xam ne nii ay nit la xam seen atelier di ci liggéey di ko toppatoo ba mu xëy màgg ñu créé usine kon métier yooyu bu ko kenn xel waaye nañ fexe ba doxal ko xanaa kay jafe-jafe bi kay mooy ne nii laa fekkoon saa yore ko ko sama baay yore ko ko kon du ma ko soppi loolu moom àdduna nangootu ko adduna day soppi loolu moom ku nekk da koy bàyyi xel yëf yi day soppi ko mënta ñàkk boo ko soppiwul nit loolu moom mënta ñàkk teñ teel a xale yi teel a xam ne principe bu mu mënti doon man-man moo koy aar ba nga am principe da am man-man nit ko amul man-man mul principe biir bu ci dara newul ay pas-pas dafa nekk ndax ku la njëkk a jox lu def ci biir bi rek mën na laa moom kon il faut que na ko liggéey ba am foo sukkandiku am ay man-man mooy tax sa principe yi nga mën koo aar bu nu bëggee suñu ngëm-ngëm suñu pas-pas suñu valeur ñu aar ko il faut que nu am man-man tey boo gisee tey nit jóge fële ñëw bëgg ñoo imposé loo xam ne nii ñun ñëpp kenn àndu ci lu tax ndax daa yor man-man yàgg nañoo wax ne kuy dépensé kuy joxe xaalis yaay supervisé maanaam kuy joxe xaalis yaay jox mbir mi ni nii kër sax bu fekkee ne da nga faa nekk sa morom sa morom di joxe dépense joxe woo dépense bu ñuy laaj kenn du la laaj sa morom mi joxe dépense la ñuy laaj yow amoo àtte kon man-man mooy lal principe principe bu mënti doon man-man mooy tax mu dox tey am na bare bare ñu ngi koy jàmbat naan réew yu tubaab yi ñoo ñu koy imposé nangam ak nangam bëgguñu ko du diine du jullit nang lu tax parce que bu ñëwee xaalis lañ koy booleel dañ lay jox financement ne la nangam milliards ngi nii waaye nag il faut nga jàllale la waa bëgg nga xaalis mënoo ko ñàkk il faut nga jàllale waa pour jël xaalis bi loolu rek la te loolu nag ni mu amee ci réew yi noonu la valable ci nit ñi tey bari na koo xam ne nii bu la bëggee ger xaalis la lay jox bu la joxee xaalis nga def la mu bëgg nga defal ko def ko kon xale yi nañ teel a gëm ne man man mooy aar principe principe boo ma di gis ci àddina man man moo koy aar nan teel a xamal xale ne seen wér-gi-yaram ci seen loxo la nekk yéen a koy sàmm. fi wére di xale di jóge xam nañ ko mooy ci sa morom ci dorog am ñoll wére di dal xale yu baree bari foofu lay jóge mooy séq ak sa morom wala ngay jëfandikoo am ñoll wala dorog wala yu mel noonu xale yi nañ fexe ba yooyu bu leen ci kenn puus bañ jëm ci am na lu ma ci waxoon léegi ci tàmbali bi loolu politique la boo xam nañ ko xam jamono ngi ñu joo xam ne nii àddina bi dafa ubbi ko internet baa ngi dox tele yaa ngi dox lépp ngi dox saa yu xëyee wan la xale yoo xam dañuy jëfandikoo yu mel noonu di la ci xiirtal di la wan ay film yoo xam ne nii yàq sam xel rek lay jëriñ kon xale nañ bàyyi xel ci ne loola mooy buñ ci jubloo mooy jur ci ñoom ak doyadi ak nitu bànneex am na xalaatkat bu mag boo xam ne nii mas nay jàngal xale yi daf leneen booy dugg ci dund ñetti mbir mooy ñëw taxaw sa kanam nee na booy dugg dund booy tàmbali dugg dund nee na ñetti mbir ñooy ñëw taxaw sa kanam xaalis day ñëw taxaw ne la maa ngi nii sa moroom day ñëw taxaw bu dee góor jigéen bu dee jigéen góor day ñëw taxaw ne la maa ngi nii xam-xam ñëw taxaw ne la maa ngi nii jafe-jafe nag mooy ci ban laay tàmbalee mu ne leen nag su fekkee da ngaa tàmbalee ci sa moroom xale boo gis mu jóg demagul fenn xelam ne wuti lu dul ci moroomam bu dee góor wala bu jigéen moo xam nee na boo tàmbalee ci sa moroom moom doo am alal doo am xam-xam nit bu xëyee jógteewul lenn lu dul moroomam du avancé waaw nit koo xam ne yitteem yëpp mi ngi ko def ci faj bànneexu bànneexu yëg-yëgu bànneexam boobu kese la kooku du avancé mukk du am xam-xam du am alal mu ne la kon nag boo tàmbalee ci sa moroom moom neen doo am alal doo am xam-xam mu ne la boo tàmbalee ci alal ji nag mën nga am sa moroom moom waaye xam-xam doo ko am alal boo ci tàmbalee ci ku mën nga am alal ju bari boo xasee am moom mën ngaa takk soxna sa la neex bu dee jigéen itam boo amee alal mën naa am góor góor neex na am na góor ñoo xam loolu li ñuy wër mu ne kon bu fekkee am nga alal moom da nga cee tàmbalee mën nga am sa morom waaye xam-xam dana la raw mun la nag boo tàmbalee ci xam-xam nag mën nga am sa morom mën nga am alal tey cadre yi dëgg-dëgg am ñoo xam ne cadre rek la ñuy wër cadre kese la ñuy wër moom tey booy liggéey bu dee liggéey da gis koo xam ne nii mën ngeen jamononte nga dem jàngi bàyyi ko fi moo mën a ci liggéey di liggéey nga dem jàngi ba nekk cadre boo ñëwee sa ñaari salaire yi nga njëkk a fayu donc daanaka moom ba mu tàmbali liggéey ba ba léegi mën naa am amagul mën na koo fay kon nag leneen li moom jur ñuy waxaale kon njàng mi boo ci tàmbalee mën naa rek régler ñaari problème yëpp waaye nag ñaari boo ci tàmbalee am lu la raw yooyu kon yennat la ci nga xam ne nii war nañ koo leeral xale yi ñu xam ko ñu teel koo jëmbat ci ñoom ànd ak ñoom ñu màggaale ko bu ko def ba ëllëgee ñoom taxawaay bi ñu war a taxaw danañ ko mën a taxaw taxawaay boobu nag ci lañuy ñëw muy muy bànqaas yi nga xam ne nii jàpp nañ ne xale yi mën nañ cee joyanti dundin askan wi ndax bànqaas yi bu ñu koo xool gis bànqaas bu nekk ne ay rëq-rëq mi ngi ci te xale yi lañ jàpp ne war nañ ko mën a jubanti buñ nee jubbanti nag ci waxin wi weesuwul rek maanaam méthode yi ñu jëfandikoo melokaan yi comportement yi nu ñuy fexee ba adapté ko ba dëppale koog li jamono soxla nu war a doxe noonu wala ba xool orientation bi askan bi am maanaam xeet bi bëgg-bëgg yi ñu am fi ñu bëgg a àgg nu ñuy mën a fexee ba yëf yi ni muy doxe nu fexe ba adapté ko ba dëppale ko ba loola ñu mën koo doxal loolu mooy mooy mooy mooy mooy réforme jubbanti mooy joyante kon kiy joyanti wu askan mooy réformateur wala yu mel noonu wala réformist kooku mooy koo xam ne nii dafa ñëw ngir li war a soppiku te mën a soppiku mu soppiku am na loo xam ne nii mën naa soppiku te daa war a soppiku ñu war koo soppi nu soppi ko li nga xam ne nii dañ ko war a adapté ba mu dëppoog situation bi nu adapté ko li nga xam dafa war a sax kenn waru koo soppi nu bàyyi ko fi loolu rek mooy liggéey bi kon léegi nan xool biir askan wi li ci mat a soppi ñu soppi ko li nga xam ne dañ ko war a jubbanti adapté ko ñu adapté ko li nga xam ne dafay war a sax moom ñu bàyyi ko ñu téye ko fi te loolu mooy li nga xam moo fa war a des muy mission boo xam ne ni nag xalaatkat yi mu ngay dégg ci àdduna bi yëpp loolu moo doon seen ci kaw àdduna nitu diine yu màgg yi ngay dégg yépp tàmbale ko ci yonent bi alayhi ak ñoo ko jiitoon ci gaa yu baax ba ci Sëriñ Tuubaa di anhu ak ñu baax ñu mujj ñëw ñëpp loolu moo doon seen yitte ñi nga dégg histoire di leen tudd ñëpp loolu moo doon seen yitte banqaas yi nga xam ne nag jàpp nañ ne xale yi mën nañ cee yëngutu di ci liggéey ngir mën koo joyanti banqaas yu bari la danañ ci tudd diine ji danañ ci di wàllu koom économie bi danañ ci di wàllu social bi danañ ci di wàllu politique ak laaf ci jikko yi ci biir bu dee ci wàllu diine ji dañuy gis ne diine jëmmi diine ci boobu amul rëq-rëq waaye ni ñuy dundee diine mu am rëq-rëq quraan alquraanu karim amul ñu jubanti lii wér ci diine sax muy xadis bu wér wala alquraan ju alquraanu karim loolu amul ñu jubanti waaye nag nit ñi ni ñuy dund diine moo laaj jubanti lu ci baree bari dafa laaj jubanti te ndaw ñi lañ jàpp ne ñoom war nañ cee mën a liggéey te tàmbalee ko nag ci ñoom seen bopp ñu jàng diine ba nopp waxoon naa ko léegi bala ngaa mën a jubbanti dara il faut que da koy xam diine ji bala ko mën a jubbanti dañ koy jàng ba xam ko jàng ko nag ci cosaan yi fañ koy jëlee cosaan yi jàng alxuraan jàng xadis yi nga xam ne ni wér na ci yonent bi alayhi salaam la ñu jàng ba xam ko nag ak yenn dëgg bu ànd kook boroom xam-xam yi nga xam ne nii seen diine ñor na leen ñu koy dund bu ñu ko jàngee ba xam ko nag kon seen liggéey mooy doon mooy doon lan mooy fexe ba discours diine bu baax bi ñu koy tasaare ku nekk xam na ne discours diine dafa am solo lu bare bari ci diine lañ koy jaarale te ñëpp lañ ñëpp lañ koy wax ci diine ji boo ko xoolee dëgg-dëgg seen yëfi bopp la waaye jotewul dara ak diine bu ko defee xale yi nag ñoom dañ fexe ba discours boobu ñu soppi ko. fexe ba jël discours diine bi nga xam mooy diine dëgg-dëgg ñu koy tasaare ci biir nit ñi jaare ko nag ci jonjook nit ñi di leen conscientiser ay ndaw ndaw dafa mën a xëcc ndaw day xëcc ndaw luñ ko séen loo ko séen moo ca nekk ca pour mu xëcc ni dafa yomb mën na caa xëcc moroom ak benn benn sax mag ñi nga xam ne nii àgguñ fenn fi ndaw ñi dañ leen di xëccaale moo tax ñoom bu ñu leen gisee ñuy fréquenté jàkka yi bu bayaan jotee ñoom ñooy bayaan wax ak nit ñi bu jotee ñuy wax ak nit ñi di wax discours diine bu baax buy jàll loolu ci la bokk soññ nit ñi waaye ñoom seen bopp nit ñu koy pratiquer la wax ñoom seen bopp ñu koy pratiquer loolu nag xale yi bokk na ci doon def ko ñu fexe ba lépp luy ëppal nañu ñu sori ko tatarruf extrémisme maanaam ëppal ak teengal ci diine xale yi nañ teel a xam loolu bokkul ci diine loolu nañ ko teel a bàyyi xel loolu nag ndax mooy fiir gi nga xam ne nii moom la gaa yi jëfandikoo tey ñi nga xam dañuy jëngu ci wàllu diine moo xam ay munazamaat lañ ay organisme yoo xam ne nii dañuy wax ne diine lañuy taxawal ñu baree ci ñoom dañuy exploiter xale yi xale yu ndaw lañuy ñuy jël dugal leen ci ay camp defal leen ñu wax raxas seen muq raxas seen yuur gi def ci ñoom yeneen xalaat gëmloo leen takk ay bomb dem dugg ci jumaa ñuy julli nga taal sa bopp rey mbooloo mu du jeex ay jàmbur donc ngay rey loolu ay ndaw lañ koy def loo yoo xam ne nii liggéey bu mag a mag la ñuy liggéey ci ñoom da ngay dem ba ñoom dañuy mel ne ku yor commande commande tele la ñu yor di la commande fu ñu bëgg nga jëm fa rek foofu ngay jëm loolu yoon la wis boo xam ne xam nañ dañ koy def ba buñ lay orienté takk loola loo xam ne ni explosion lay doon nga takk ko sa ndigg dem ba mbooloo muy julli nga explosé ko faatu ca reyaale mbooloo mu du jeex loolu ñu koy def xale yi la ñuy exploité te xër gu ñu xër nag la ñuy exploité ndax ku ne xam ne ne xale am na fa ba fa tolloo da ngay xër ci diine da ngay gëm diine dangay ngay gëm xër ci diine xër-xër boobu nag gars dañ koo xam moo tax moom la ñuy di la def loo yu mel noonu kon xale nañ sori xeeti organisme yu mel noonu mbooloo moo gis te xamoo la ko lal bu te dugg na ko sori danañ rafet lu baax nag yu mel ni yi ñu am nii tey bu ñu nee weeru koor jot na tey jàkka yu bare ba boo fa demee ay xale organisé wu di fa taxawal jataay yu mel nii ak waxtaan yu mel nii kër diine yu bare bare la fi boo demee ña ngi koy def muy dox jéego bu am solo loolu am na solo ci biir weeru koor yi waaye nag nañ bàyyi xel ci ne dund gi yëmu ci weeru koor weeru koor day jeex ba noppi dund gi continuer dox te dund gi nag dafa soxla jamono ji nekk ñu ciy liggéey bu ne jàpp ne weeru koor rek lañu war a liggéey boobaa kon liggéey bi du am solo kon ni dund gi continuer maanaam waxtaan bi conscientisation bi sensibilisation bi yeete bi dafa war a di sax jamono ji nekk saa su nekk dafa war ànd ak ñoom di dox kon dund gi di yem foofu kon joxe na ko di yem foofu kon diine ji xale yi mën nañ cee liggéey lu bëree bëri gannaaw bu ko jàngee ba noppi. ci biir yéwénal dundinu askan wi xeet bi jikko yi relation yi ñuy séq ku nekk xam na ne xale moo gën a woyof moo gën a mën a dox moo gën a nangu coono joxe sonn tam xale ko gën a mën ci mag joxe seen bopp ak joxe seen alal ci ndaw ñi lañ ko gën a séentoo déplacement ak wax ak yëgutu ci ñoom lañ ko gën a séentoo moo tax ñoom mën nañoo taxaw taxawaay bu am solo ci dundal mbokk gi ak defaraat diggante yi yi yàqu koy defar loolu na xëy na waxee fii dina jaaxal ñu baree bare waaye dafay ponk bu am solo ci biir askan bi mooy ni fexe ba nit ñi xam li bokk fexe ba diggante yi ñu koy jubanti di ko defaraat loolu bu amoon tey joolaa du dal ci kaw séeréer séeréer du kaw dal ci kaw joola ndax bokkuñu ndax ñoom ñoo bokk ay mbokk lañ ñoom ñaar ay kal lañ kon ca cosaan am nañu mbokk mbokk bu ñu fexoon dee ba xale yi xam ko kon duñ gis xale yoo xam ne nii ci université lañ nekk ñii de ay joolaa ñii di ay séeréer ñii daalante seen biir di rayante loolu buñ ci doxoon bañ xam liñ bokk loolu nag fépp la am fépp la am ci misaal kon tey loolu xale yi mën nañ cee dox lu baree bari ñu fexe bañ xam li ñu bokk xam li ñu boole mën nañ cee liggéey liggéey bu mag a mag te buñ dewoon ba loolu xam nag lu bëree bari mën naa sopp buñ buñ dewoon ba xam nañ bokk rek lu bëree bari mën naa sopp ko ci dundin bi xale yi mën nañoo dugal seen loxo ci fexe ba ñàkk a jàng ji am ci biir askan wi mu deñ wala boog mu wàññi li ñuy wax analphabétisme maanaam ñu fexe ba alphabétisation xale yi di ci liggéey mën nañ ko ndax du jël temps bu bari d'après te loolu ci la ñuy jaar ba mën a xeex ak réer xeex ak réer ndax noonu dañoo gëm ne xam-xam bu amoon rek nit ñëpp buñ maase woon ci xam rek léegi day yëf yi sot ko ñàkk xam gi tasaaroo ci biir nit ñi moo indi rëq-rëq yu bari kon xale yi mën na noo liggéey ci biir askan wi ci cawarte gu ñu am fexe ba ku nekk nga mën a liir mën a bind aslëf mën a calcul yu mel noonu gàtt gàtt nga am lu mul boobaa boo gisee xabaar da ko mën a liir luñ bind da ko mën liir boo gisee loo war a calcul da nga ko mën a calcul ndax réer rek mooy noon mooy suñu noon réer mooy suñu noon bi gën a mag mooy réer danañ koy faral di wax ne leen mooy ñett yi nga xam ne moom fu ñu toog buñ ca waxut balaa ñu bàyyi faagaagal mbooloom muy réer ak ñàkk ak wéradi ñett ak ñi noonu yoo xam ne nii mbooloo muñ dugg te faagaagaluñ ko buñ leen fi bàyyi ñu faagaagal mbooloom mi kon réer xale yi mën nañ cee liggéey ba mag tey xale yëpp am ay ASC ASC yi ñu am nii am nañ ñenn ñi ami daayira ñenn ñi ami daayira tey waroon nañ daayira bu mënti nekk bu fekkee ñun daayira moom moo ñu gën a jege daayira bu nekk waroon naa am ay classe classe yoo xam ne nii lu ko tax a jóg mooy mag ñi weesu jàng toog ci banc di jàng ñu leen fay dajale di fexe bañ fer ijji daayira bu nekk mën na ko te loolu du jël temps parce que ay ngoon lañ koy def maanaam ñu ne ngoon gu nekk li tàmbalee huit heures ba ba dix heures wala ñu noonu ñu dajale magi koñ bi ak benn benn xale yi nga xam ne nii yàlla dogal na jànguñu ñu fexe ba gàtt gàtt ñu dañu réer jàngal loolu xale yi mën nañ ko ay koy ay maanaam ay maanaam association yi ne ci koñ yi bari ba dee daayira yi ne ci koñ yi mën nañ lu mel noonu loolu nañ ko boole ci liggéey bi waxoon naa ko léegi itam di jonjoog nit ñi itam am ñoom contact direct dana tax li nga bëgg a def ci ñoom nga mën koo def ci ñoom am na beneen liggéey boo xam ne xale yi mën nañu ko liggéey itam mu jëm ci wàllum koom fànn koom-koom xale yi ñooy force bi nga xam ñooy produire kon ñoom comme ñoo toll ci intaaj ñoo toll ci produire nag kon ñoom war na ñoo mën a dugal seen loxo bu baax ci suqali koomu réew mi ci ni ma ko waxoon léegi nag nangoo liggéey ak yu mel noonu loolu jëru del si nañu liggéey itam fexe ba ñàkk gi tasaaroo ci suñu biir mu wàññi ko fexe ba am ay ay coopérative ay coopérative man maanaam mbooloo yoo xam ne dañuy leen suñu biir xam ngeen ne tey xaalisu mbooloo yomb naa bari tey man su ma joxee ñaar dërëm kii joxe fukki dërëm kee joxe juróom kee joxe téeméer kee joxe cinq mille buñ ko dajalee kees lay doon goo xam ne nii mën nañ cee suqali ñu bëree bari te te kenn du ko yëg nag day yomb ci ñun loolu defe naa gis nañ ci ay association yu ci dox yu bëree bëri loolu itam xale yi war nañoo fexe ba koñ bu nekk ñu am coopérative maanaam kees boo xam ne ni fonds de solidarité lay doon boo xam ku nekk da ciy dugal ku am dugal ci bu nit tolloo ci jafe-jafe ko jàppale waxuñ nag ñu defar daayira def ak cant jël xaalis bi togg ko nangam nangam lekk loolu moom xëy na baax na waaye lii bokkut ak loolu loolu mën naa am ba noppi ci wet gi nag ñu def benn fonds de solidarité boo xam ne nii loolu moo koy tax a jóg loolu tam day tax nit ñi sawaruñoo dimbale ndax dañu wax ndimbal na ci fekk loxol borom lu bari ñu ngi koy jàmbat naan nañ ñu ko defal nañu ko defal mën nañu ko defal suñu bopp dañoo organisé wul rek waaye bu ñu ko mën ko def suñu bopp kon xale yi mën nañ dugal seen loxo ci wàllum suqali mi ci fànn boobu war nañ fexe tam ba nit ñi gëm liggéeyu mbooloo ànd di defandoo lu am solo la ndax ànd di defandoo moo tax ñuy mën a ànd di jariñoo waaye su fekkee kenn ku nekk dangaa ngaa def yow dong la nga def yow dong yow dong yaay ci jariñu wala kala neex waaye day gis koo xam du ca mën a jariñu ndax du la mën a ànd ca la nga bëgg du ca mën a ànd ak yow te bu defoon nga ne ko doo ci jariñoo kon nañu ànd defandoo fexe ba liggéeyu mbooloo ñu tamal ko nit ñi bu ñu àndee defandoo bu jariñ jariñ bu jariñoo jotee ñun ñëpp ñu mën a ànd jariñoo te kenn di yëpp ak xeebeel ci sa bopp loolu am na solo xale yi mën nañ ci lu bari mën nañ koy def yàq gi am ci alal ji xale yi mën nañ ci lu baree bari tey bu fekkoon ne dañ ne ñun association bi ñu am ci koñ bi daayira la walla ASC la wala yu mel noonu dañ naan léegi daal ñun daal képp ku ci amati ngénte doo weesu nangam képp ku ci amati ceet doo weesu nangam loolu xale yi mën nañ ko te mën nañ ko baax te ñoom ñoo toll ci takk ak am doom wax dëgg loolu buñ ci buñ ci liggéeyee mën nañu liggéey liggéey bu gaaw boo xam mën naa soppi lu bare bare te daayira bu nekk bu ñu ko defoon ñu la boo bokk xasee bokk ci daayira bi kat lii ak lii ak lii dootoo ko def muy yàq yi am ci biir askan xam ngeen ni wax dëgg yàlla ndaw lu liggéey ñaari at ñetti at ba ñeenti at ñeen ñi ëppale ko dajale ko xëy takk soxna la nga liggéeyoon lépp nga def ko ci tàmbaliwaat nag sifru zéro commencé jëm kaw loolu wax dëgg yàlla mu rafet nangu ko te mën nañ cee liggéey te loolu nag li fekk ñu ngi doxale noonu am am bi day mën a am ndax fi boo defee loolu yow bu fekkee da ngaa dajale ñetti ñeenti at takke ko soxna def ko ci balaa mu at soxna si am doom la nga dajaloon nga defaat ko ci noonu mu continuer dootoo am dara dajalam mu doo ko def te loolu xale yi mën nañ cee liggéey kon xale yi mën nañoo liggéey ci fexe ba yàq gi am ci xew-xew yooyu mën naa wàññiku bu baax a baax ñoom ci kaw ñoom ñu joxe ci misaal jëf ji coobarewu na ko xale yi yokk dañoo soxla ku setal dëkk bi na ko xale yi méngoo lañ ca waroon a fay mën naa dugg feneen noonu xale maanaam muy muy ma jàllaat yu bare bare yoo xam ne xale yi mën nañ cee liggéey am na ci lu am solo loo xam ne nii xale yi war nañ ko bàyyi xel mooy waxtu yi nga xam ne nii defoo ci dara da ngay jàng école tëj na am nga ñetti weer ñeenti weer vacances xëyoo école defoo dara ñeenti weer yooyu xale yu bare ba dañ koy perte ci ak neen aka neexoon nag xale yi xam ko ba ñeenti weer yooyu nu koy jëfandikoo ci loo xam ne ni dafay produire dàqontewul dëkk boo dem tubaa am na fi léegi xay na nanguwuñ ko waaye am na fi am na fi ASC yoo xam ne ni maanaam na la lañuy dem Mbàkke la ñuy dem loolu mi ngi fi daanaka xale yi bu école tëjee ñetti weer yëpp ñu ngi koy jeexal ci lan soo xëyee da ngay nelaw ba une nga yeewu añ dem dem terrain bala nga faa jógee minuit wala dix heures boo ñëwee toog ci garam place naan ataaya ba guddi nga ñëw tëdd nelaw loolu dong la ñuy liggéey ñeenti weer yëpp ci loolu la ñu koy mais ñeenti weer nit koo perte ci dund nga perte ñeenti weer loolu foo jëm te loolu moo fi nekk te mënoon nañ wax dëgg yàlla tey bu école tëjee léegi ñu ne kat ASC bu nekk na am tool ci misaal ferme ferme sax mu ëpp tool maanaam poulailler ngi ci biir tool ngi ci biir maanaam sàmm lépp a ngi ci biir bu ñëwoon tey ASC bu nekk wala association bu nekk am na ferm ferme boobu léegi bu ñu tàggatee si yaram ba pare loolu mënta ñàkk tàggat yaram mënta ñàkk nga dem tàggat si yaram ba ñëw boo ñëwee nga dem liggéey waaye ñeenti weer yoo xam ne diggante nelaw ak foo rek nga koy liggéey loolu pertement la boo xam ne nii ñu ngi koy perte te xamuñu moo tax léegi am na benn benn yi ci commencé yeew di wax lu mel noonu di ko def loolu war nañ koo soññ war nañ koo soññee bu baax a baax loolu xale yi nañ ci xalaataat bu baax a baax mooy ñeenti weeri vacances yi yàq gi ñu koy yàq nañ ko xool kon loolu ci wàllum koom xale yi mën nañ cee liggéey lu mel noonu ñu ñëw ci wàllu politique bi nag yaakaar naa ne bu ñuy waxtaan ci bànqaas politique moom bànqaas bi gën a mët a jubbanti ci àdduna bi rawat na ci Sénégal moom mooy politique politique mu li ci nekk ay rëq-rëq maanaam moo ëpp ñu koy jëf maanaam ah, maanaam li mu politiciens yi nekk ci àdduna bi yëpp rëq-rëq yi ñuy def moo leen ëpp maanaam koo ci jël rek mën nga ko waxam nangami rëq-rëq yoo xam mi ngi koy def yoo xam war ko jubbanti kon jàdd-jàdd yu baree bari foofu lay départ te bokk na ci li xam mooy ne fi ab yi gën a exposé maanaam fi ab yi nga xam ne nii moom lañ ëpp lu ñuy exploité ci wàllum politique maanaam catégorie catégorie bi ëpp lu ñuy exploité wàllu politique mooy jigéen ñi xale yi jigéen ñi xale yi ñoom la politiciens yi gën a yëpp ñoom la ñëw sëf leen ci kaar ñoom la ñuy sànniloo xeer yi ñoom lañuy ñuy lépp ñoom la ñu ko def loolu dañ leen exploité ba pare nag ba àgg ci lañ soxla woon ñoom bu ñu àggee ba am nañ bëggoon ñoom daal leen di bàyyi bu ko defee ñu nekk fay coow beneen waaye dagge ci làng nga ñëwaat ne man politique c'est la daal di commencé waat jaar leen fa ku njëkk a moom bu àggee fa mu àggoon bàyyi leen keneen ñëw jëlaat leen loolu moom ku gis àdduna bi ni muy doxee du Sénégal donc àdduna bépp noonu lay doxe ndax xam ne dañ koo mën a xam fii suñu réew moo tax xale am na taxawaay bu am solo boo xam ne dañu ko war a taxaw ci wàllum politique mooy politique ay valeur ay valeur yoo xam ne moom li ñu tuddee ay valeur morale morale maanaam ñooyam maanaam ay jikko jikko yi ñu li ñu wax jikko dañ ne la boo jëlee nit bu fekkee danga nga koo jël ci niwoo nit ki baax baax yi ngay wax ci moom ay jikko lañ koy tuddee waaye nag boo ko yaatalee ba mu làmb état bi yëpp ñu tuddee ko politique kon lu ñu tuddee jikko ju baax ci nit moom la ñuy politique ci ab état moo tax dañaa état mooy nit kuñ bind ci araf yu mag nit nga jël rek bind ko ci araf yu ko kenn di misaal moo tax kon jikko yu baax yi soxla ci nit moom lañ soxla ci état moom lañ soxla ci kuy def politique moom lañ soxla ci politique kon xale yi war na noom indi rupture épistémologique boo xam ne day am ci biir politique bi mooy nañ doon doxalee politique bu njëkk ñoom ñu indi doxalin bu bees bu njëkk dañaan politique mooy koo xam ne nii lam lay wax du ko def la muy def du la ko wax nga fexe ba loolu nga dindi ko di wax li ngay def di def li ngay wax loolu xale yi mën nañ ci liggéey baax a baax mooy valeur yi nga xam ne nii moom la ab politicien war a xale yi dugg ci politique fexe ba di ko incarner loolu mën naa nekk kon dëggu ak sellal ak dem ba jeex ci li ngay def ay melokaan yu baax la ci nit waaye ci politique ci la gën a baaxe kon li siif ñu naan politique mooy nax la mooy fànn ak naxe fànn ak wor fànn yooyu yooyu loolu du politique loolu wax dëgg yàlla ñoom ñoo ko tudd noonu waaye yàq kii bi la kon xale yi nañ fexe ba politique bi ñoom mënuñ cee ñàkk ba ñu dugg waaye kon nag ni ciy dugg nañ fexe ba indi ci dagg-dagg boobu te mooy nan ko daan doxale bu njëkk ak nañ koy doxale léegi nu fexe ba soppi ko xale yi buñ nangoo te nekk fowukaay ci loxoy politiciens yi ñi leen di jël di leen jëfandikoo ci di leen yàqloo loo xam seen i baay seen i ay téeméer lañ ci def ngir taxawal ko ñu xëy ñu yàqloo leen loolu bu ko benn xale nangoo te ëpp na loolu sax réew mi nga xam ñoom ndénkaan la seen loxo ñu bëgg leen ko yàqloo loolu xale yi nañ ci yeew te xam ne politiciens bu ñu leen koy defloo ñoom seen intérêt dong la te ñoom mën naa am la cay juddoo la cay ngaañ dëgg-dëgg ñoom duñ ko yëg ndax balaa agsi dëgg-dëgg ñoom ñu jóge fi yéen nag yéen ñi ci toll nag boobaa yéen ci fas yéene loro loraa ngi ci yéen la ëppee kon yooyu sëñ ason yenn la ci yi nga xam ne ni bëggoon nañ ko ubbi bunt bi muy bunt bu xaw a yaatu ci ndaw ñi muy waxtaan woo xam tam dañoo gëm ne il faut waxtaan ñuy wax mu jëm ci xale yi il faut que buñ ko mënee gën a xalaataat soppaat ko di ko waxee neneen ñu gën ko def bu ko defee nag dañuy jël suñ kàddu nag boole ko kàddu xalaatkat bu mag boo xam dafa mën a ci jàngale ne bokk na ci liy tegtale nit ki am xelam a ngi dox mooy muy jàngee ci li ko wër xew-xew yu la wër nga di ko gis di ko jàng di ca jànge dafa bokk ci xel njuumte yi nga xam ne gis nga ñi la wër tàbbi nañ ca yow nga fexe ba njuumte yooyu bu ca tàbb loolu tax ñu ne alxakim ni ita'adha bi ghayri borom xel dëgg-dëgg moo koy koo xam ne ni day waaroo ci kuddul moom njuum de nga gis ki nekk sabet def ko fexeel ba yow bu mu la dal lu baax li nga gis ki ne sabet di ko def fexeel ba jariñoo ko buñ xoolee nag li xew ci réew yu ma tuddoon léegi muy réew yi arab yooyu ak benn benn réew yi ñu xam ne ni ay pays communiste la ñu bu njëkk xëy na population dañu amoon xër ci mbir mi metti woon da bañ ne nañ ko fi jëlee waaye nag su fekkee da ngaa bëgg a defar volonté am nga volonté bi waaye nag jàngatoo li war a juddoo ci defar bi mën naa am mu jur loo xam ne ni moo yées la nga doon def la nga bëggoon réew yu baree bari tey loolu moo leen tam réew arab yu baree bari boo fa demoon tey lu ñu woon siiwe jotaat ca lañ amoon ndax xëy na danoo dugg ci réforme te jàngatuñ ko mu jural leen situation boo xam ne ni nag moo yées bañ doon dund loolu nag nun dañ cee war a jànge dañ cee war a jànge tey ah, am na réew yoo xam ne nii ña fa nekk tey ne dañuy jubbanti àgg na ci situation boo xam ne bu ñu la ko joxoon tey ne la réew maa ngi nii yow mandat yaa ngi koy def yëpp yaa ngi koy jeexal ci fexe ba saxaar gi raayoon nga tegaat ko ci kaw raay bi mën naa am sax sa mandat dana jeex te loolu doo ko man ndax yàqu ga ga fa am ak jafe-jafe yi fa am xóot na xóotaay boo xam ne nii jafe naa jubanti loolu nag kon ñun ñi nga xam ne xale yi nga xam ne ñoo ci réew mi te bëgg a jubanti bëgg a joyanti nan jàngat loolu bu baax a baax a baax kon nañ ko jàngat baax a baax foofu nag fi lañuy ñuy duggee xëy na fi la ñuy wàccee kàddu gi dénkaan bu am solo bi nga xam ne nii Cheikh Mamadou Mountakha dénkaane woon na ko ci xale yi mu dajeeloon muy ay ndaw yoo xam daje woon na ak ñoom te ñoom ñu am bëgg-bëgg soppi mu wax leen wax ju am solo yoo xam ne nii ñëpp war nañ ko bàyyi xel mooy lu baax dëgg-dëgg te mooy defar dafa am aw yoon lu baax dëgg-dëgg te mooy defar dafa am aw yoon kon li jot mooy ku nekk ci ñun nag laajal sa bopp ndax man yoon wi ma jaar mooy yoon wu baax yi wala déet foofu daal la ñuy wàcce suñu kàddu wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ bi dafa mel ne waxtu wi xaw nañoo xoj tuuti euh, mu mel ne euh, li doon waxtaane rek pour ñu fàttali ko mooy taxawaayu ndaw ñi ci euh, ni ñuy yéwénale seen dundinu social dafa mel ne sëñ bi indi na ci tomb yu am solo yoo xam ne yàpp naa ni ñi doon déglu kii nañ ci bu baax déglu nañ ko bu baax itam te it eh, jëlee nañ ci ay bind yu yu yu yu am solo eh, te moo di eh, lépp loo xamante ne bii nit mi ngi koy def wala muy dox jëm ca ndaw da caa am solo ndaw lu am solo la ci dunduk nit ñi loo mën a gis rek lu mën a doon ndaw am na ca solo ci jëflanteem waaye ndaw yooyu itam mm, bala ñoo mën a def loolu ñuy yaakaar ci ñoom dañoo war a jàng ni nga xamante ni bi noonu la ko sëriñ bi dénkaanee yaa ma'shara shubbaani in xiftum xajal fa xaddimu taalluman ala amal bu ngeen ragalee gàcce yéen waxambaane yi na ngeen jiital li nga xam ne mooy jàng ci liggéey euh, indi na lu am solo itam muy charte yi nga xam ne moom lañ euh, war a euh, fannaayoo ñoom ñoom ñoom xale yi te ba ci jiitu mooy mooy jàng ak ñu yar leen te ñu roy royin wu wu wu baax woo xamante ne bi noonu la lislaam euh, yare woon ñi nga xamante ne bi euh, ñoo àndoon ak yonente bi alayhi salaam ba tey it sëriñ bi nga xamante ne bi euh, mooy suñu yaakaar tey ëllëg ci yoon woowu la yaroon mag ñi nga xamante ne bi ñoo àndoon moom teñ seetlu ne ñu bari ci ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi àndaloon ñooñu ay ndaw lañu woon itam ba yoon wi di door a door ba ni mu yegsee sëñ bi moom ci boppam ci saaxir moom jamono ji nga xamante ne bii ci la ay atam Euh, toll foofu ci la liggéey liggéey yu rëyam yooyu nga xamante ne bi eh, moom moom la def ñu bari ci ñi àndoon ak moom itam euh, ci noonu lañu àndi woon ak ñoom ñi nga xam ne eh, ay mag lañu woon itam te ñëwoon ci eh, ronam ñu ci bari xam gu xam xam gu sëñ bi xam ne ndaw mooy yéwénal aw xeet moo tax mu laaj leen seeni taaw ñu ñëw ci biir kër gi di liggéey liggéey bi nga xamante ne bi moom la waroon def wóotu leen ca ba ñu ci bari da ngay gis ne ay mag lañ woon waaye seeni taaw euh, liggéey nañ liggéey bu rëy ci yoon wi kon loolu itam lu am solo la ñu ñu war koo bàyyi xel sëriñ bi euh, dikk na ci bu baax baax kon xam naa ngir xataayu waxtu wi rek dañuy sant mbokk yi nga xamante ne bii ñooñ doon seetaan euh, ci tele yi ak ci rajo yi ak ci mbooleem jokkookaay yi kon ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin